Assalamualaikum wa TikTok. Assalamualaikum wa TikTok. Nagen def. Assalamualaikum wa YouTube. Assalamualaikum wa Facebook. Ñi ngi leen nuyu di leen ziar yeen ñepp di leen jox seen waccu way

Euh, TikTok bariwul ñu je pense Il y a pas beaucoup de monde YouTube bi Facebook bi Xamna gaay dañu teud di nelaw wala bok je sais pas dañu nek di nafila def sen guddi laylatul qadr laylatul qadr xayrun min alfi shahr laylatul qadr xayrun min alfi shahr Hein Peut-être, oui, je sais pas. comme ñu fas nous ñëw def ak yéen benn waxtaan qui gàtt ci tolluwaayu réew mi ak li qui souffre, ci di def di ko di ko nasaka no te askan wi yëguñu Qui dit diggante ñi ngànk ak ñenn ñi nekk ci kujje gi ci opposition bi dëggal seen bopp ñeneen ñi ne ñi fa waaye newuñu fa ñoom ak ñi nekk ci nguur gi ñoo ànd euh, di wax ne euh, xew-xew bi fi am ci semaine bi wala boog xew-xew yi fi am mooy li ci gën a fës mën nañ na ñetti mbir la benn bi mooy li nga xam ne ñi ngi ko doon nas mu aju ci ndaje mi ñu waxoon a daje tey ci tribunal bi ne wooy dañuy attewaat atte bi ñu atte woon diggante président Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang muy le procès en appel le bi ci topp di woote gi nga xam ne Idrissa Seck woo na ko média yi la mu fa wax yéen ñëpp dégg ngeen ko jotoon naa ci wax waaye dinaa ci waxaat leneen loo xam ne waxuma ko woon ñetteel bi di li nga xam ne mooy Bassirou Diomaye fay secretaire général parti Pastef bi ñu jàpp def ci kaso yi ak condition yi ñu ko jàppee mu ñetti mbir yoo xam ne moom laa bëgg ñu waxtaanu ko waxtaan wu gaaw ma wax leen ci li ma ci xam et puis suñu noppee ñu daal di tëj bu njëkk bi kon mooy ndaje mi nga xam ne muy procès bi ñu ne woon dañu koy woote tey le 17 li ci xew xam ngeen ko renvoyé waat nañ ko d'office waaye bettuñu li ñu doon bett moo ñu jéem ko forcer jéem ko def loolu moo ñu moo ma doon bett ku mel ne man mais ni ma xamee procédure ni mu war a doxee moo tax boo xoolee daanaka sawaruma woon ci wax ci li may laay fii yëpp duma ci taxaw dama koy cof rek bàyyi parce que xamoon naa ne dofuñu dof gu toll ne ñu ñëw àttewaat mbir mi ci ay conditions yoo xam ne dafa jalgati yoon gën a fësal seen complot boo xam ne booba ba léegi ñu ngi ko jëmale Ousmane Sonko atte bu njëkk bi complot la ñu bëgg a defaat beneen complot ci ñaareelu atte bi loolu ay risque la yoo xam ne day des ci archive Sénégal lu mu yàgg yàgg daañu leen attewaat ñoom parce que ñu ngi def rek di teg di jàll mais li ñuy def yëpp ci seen kaw lay xëpp donc dofuñu def goo xam ne di xaru. moo taxoon man man a jaare ko jarul mobiliser jarul fenn gouverneur xaw jël na ay arrêté am duñu jaay essence fii duñu jakarta yi duñu daw patati patata waaye xorama luñu leen am na ñu tiit yenn patriote ñoom saa suñ nee procès Ousmane Sonko ñu tiit c'est normal parce que xamuñu procédure xamuñu attekaay yi naka la ñuy attee xamuñu code de procédure pénale xamuñu code pénal yooyu yëpp c'est normal aussi ñu tiit mais tiitaange googu ñoom ñuy tiit waruñu ñu cee yóbbaale ku mel ne man man mun nañ waruñu maa yóbbaale ci tiitaange parce que ki xam bokkul ak ki xamul ki xam dafa war a xamal ki xamul ne ko jërul tiit wax naa leen ko ñeen ñi waaye boole leen na jërul tiit ñu ne non duñu la jàpp ne ñoom tey la àdduna bi tukki tey la yàlla di wàcc ji malaaka mawti mu rey ñëpp kon loolu moom li ci xew gis ngeen ko renvoyé nañ ko ba le huit mais boole ko ak beneen lu ñu toppee Guy Marius Sagna lu kenn xamul lu mu doon le quinze une semaine après le 8 pour Ousmane Sonko le 15 pour Guy Marius Sagna ñoom ñaar ñëpp ñu ay doomi Casamance ñu signé di doomi Casamance jël justice bi na dañ leen koy sëf jàpp seen doomi di rey jël seen doom yi di tëj ak di yóbbu di àtte ci ci loo xam ne du yoon ngir bëgg leen a faagaagal Guy Marius Sagna ak Ousmane Sonko mais du ñu ci am ndam du sotti. kon procès bi li ci waroon a am moo ci am ndax def nañ li ñuy def parax yi respecté wuñu yoon ndax yàkkamti ak xamuñu fuñ jëm def li ñuy def ñu ne tekk taxaw di leen déglu Ousmane Sonko waxu ci avocat waxu ci ñun ñi xam ànd ak Ousmane Sonko waxuñu ci ñi ànd ak Ousmane Sonko te xamuñu ñoom ñoo ko doon wax ak yenn journalistes yi waaye <laughs> noonu xam ki loo xam ku koy def da ngay xaru xaragu nit du xaru bëccëg nit buy xaru day bàyyi ba guddi mu làqatu xaru waaye bëccëg ku digg njooloor nga di ci xaru kooku moom ñoom dof nañu nag ay dof lañu waaye nag mujj nañoo ximmali ko taxaw xam ne ah nañ taxaw nag lii nag lii mi ngi bëgg a ëpp nag ñëpp jéppi nañ ñu senegal gépp génn nañ ci ñun suñu tappale yii mi ngi bëgg a ëpp mais noonu la mën a demee ndax tappale yi nekkatul Macky sàll moo def ay tappale Macky moo doon tappale ba at yi weesu dossier Adji Sarr bi ba mu taxawee ba léegi du Macky sàll mooy tappale léegi Marème fay sàll moo téye dossier Adji Sarr moo téye dossier Mame Mbaye Niang Marème Faye Sall ci boppam ak ndeyam Oumou Diallo ñoom ñoo téye Sénégal ñeenti nit ñooy doxal Sénégal fi mu toll ñeenti nit Marème Faye Sall Mansour fay Oumou jàll seen ndey ak Amadou Mame Diop bi yor assemblée bi tëj ko bloqué ko ne opposition bi député yi kenn du liggéey dem nañu seen yoon. di taxawalu ci àdduna bi di uti sëriñ nekk njabar tëj assemblée nationale Sénégal ne kenn du liggéey député yi mënuñoo liggéey opposition bi ña nga fa ak ay ñaxtoog yu bari yu ñu war a liggéey ñu lànk ne du ñu ubbi assemblée bi kenn du liggéey tant que ñoom amuñu lu ñu war a def ci assemblée bi ñu ubbi ko seeni député voté ko ñu delluwaat tëj ko te jamono bi may wax ak yéen Sénégal amul assemblée nationale dañ ko tëj te Marème Faye Sall ak yaayam Oumou Diallo ak Amadou Mame Diop ba ñu fa teg ak kii nga xam ne mooy Mansour Faye ñoom ñeent ñoo téye Sénégal di joxe ay ordre police di jox ay ordre euh, justice di jox ay ordre gendarmerie di jox ay ordre préfet ak gouverneur ñoom ñoo dañuy jéggi Macky Sall Mariam Faye Sall léegi sept heures lay xëy ci palais bi 7 heures bu ñëwee xool fiche de domination Macky Sall yëpp mooy contrôler Mariam Faye Sall moo yore photo yi présidentielle bi moom mooy diriger Sénégal actuellement 7 heures lay xëy mi ngi ci palais bi. ndax moom ak Macky Sall ba ñu faloo ba léegi Mermoz la ñuy fanaan mosuñoo fanaan ci pale bi duñu fanaan ci palais bi ndax dañoo gëm ay fétiche ki ay xërëm duñ tëdd ci palais bi nañu ay républicain la ñu créé parti bu tudd APR alliance pour la république nga ne da ngaa falu ci république bi nga prêter serment ci république bi république bi jox la kër jox la toggkat jox la gardien utal la ko jox la ci biir palais bi nga ne yow doo tëdd ci pale bi sa kër ngay fanaane bés bu nekk jël suñu ay oto suñuy gasoil jël suñu garde suñu suñu ay service de sécurité les gardes rouges jël suñu protocole bi yëpp génne ko ci république bi yóbbu ko sa kër à titre privé loolu loolu ku gëm état du ko def un républicain mënu état mënu laa sol mbubb nga summi mbubb mi sànni ko fële dem sol sa mbubb bopp état dafa am protocole état dafa am ni muy doxee loolu Bruno Diatta mosu ci nangu moo tax dañu daan Bruno Diatta Macky Sall 2012 ba léegi Mermoz lay fanaan du fanaan ci palais lu tax pourquoi Macky Sall du fanan ci palais bi Senghor ci palais ba la daan fanaan Abdou Diouf di fanan ci palais bi Abdoulaye Wade di fanan ci palais bi Macky Sall nee mom moom du fanaan ci palais bi 2012 ba legui Macky Sall musta fanaan ci palais bi ndax ay sëriñam féticheuram ñoko digal mom Macky Sall moy taxaw nan il faut rester républicain il faut être citoyen ak ñi mu àndal ñu ñuy jàngal ñun comment être républicain ñom ñi nek ci biir état bi ñom respecté wuñu république bi lu mu guddi guddi guddi moom ak Mariam dañuy fanaani Mermoz parce que seeni cumbukaay fa la ne doxuñu ci république ay féticheur lañu non Ibba Faye laa wax Ibba Faye nga ci biir Ibba moo gën a garaaw Ibba mooy bandi cerveau bi Ibba mooy manipuler Mariam Faye Sall Ibba Ibba fay mooy bandi cerveau bi mooy manipuler Marème Faye Sall mooy manipuler Amadou mam Diop Ibba Faye mooy seen bandi servo moom moo maîtriser Marème yii yëpp ñuy def jugement yeeg mambay ñaabeeg appel yeeg procureur beeg euh, sûreté urbaine ak dikk ordre yëpp Marème fay Sall moo koy joxe du Macky Sall léegi nag li nga xam ne mooy procès bii ñu ne mooy am tey moo jur dem ga Idrissa Seck dem seeti Ousmane Sonko dem ji mu ko demoon seeti procès bii waroon a am tey moo sabab dem boobee waaye jàpp gi ñu jàpp Bassirou Diomaye fay ñu ngi jóge ca seeti ga Idrissa Seck seeti Ousmane Sonko. ak procès bi waroon a am tey lépp dañoo lënkaloo xam nga loolu Idrissa Seck du leen ko wax kenn du leen ko wax man maa leen koy wax fii mu bëgg ngeen déglu mu baax a baax. Macky Sall géreetul Sénégal. Macky Sall dañ koy signaloo muy signé ñu di ko wax loo muy wax Marième fay sàll mooy buum ak bummi 7 heures du matin lay xëy ci pale bi léegi lay xëy teel a xëy si day liggéey léegi moo gérer dossiers yi mooy xool fiche audience yi mooy wax ak nit ñi mooy woo procureur mooy tànn mooy def lu Marième Faye Sall mooy diriger Sénégal man maa leen wax loolu. parce que sénégalais yi ñoo ko nangu. moo tax Marème di def lu ko neex jàpp ne moom dafa war a toog pare ñu pour bàyyi état bi Marème nguur la gëm du bàyyi day xeex ak ñun jël alal yëpp def ci multimilliardaire la boo demee Saint-Louis côte ba côte Saint-Louis ba plage yi foofu suuf yëpp jël nañ ko moom ak Mansour Faye ay hôtel lañ fay tabax parce que pétrole gaz bi ñu war a génne foofu daañu fa def ay plateforme hôtelière yoo xam ne pour expatriés yi war a ñëw kër yi ñu war a dëkk war a yëpp ngan bi jël nañ suuf yëpp téye Saint-Louis Marème Faye Sall ak Mansour léegi bi ñu xamee ne procès bi ñëw na en appel ñu bëgg a xoqatal Ousmane Sonko sa Seck dem daje ak makki sàll ak Oumou jàlloo ak Marème Faye Sall kër Oumou Diallo yaayu Marème ñu teg seen i dil wax naa leen la taxaw ñu daje ak naka la bëgg a fexe ba tënk Ousmane Sonko ba li ñu bëgg Ousmane Sonko du ci dugal tànkam Idrissa Seck tamit xamna ne Ablaye Wade ak Macky Sall ñi ngi teg deal te loolu bu sottee mom dañ koy rendi ndax Idrissa Seck ak Ablaye Wade ak Macky Sall mënuñoo bokk ben ben euh, mbalka di wëggu di naan Idrissa Seck ne legi Macky dama lay dem sétali Ousmane Sonko fexé ba tënkal lako ba nga xamna yow li nga bëgg dina mëna te du yëngu dana dem waxtaan ak mom mu dem wax ak Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko ne ko lii may wax ak yow na yam suñu diggante bu ko bu ko ñett yëg def def leen bu baax de comme Ousmane Sonko du politicien maanaam du kuy wax di weddi du fenkat Idrissa sekk xam na loolu mu ñëw jaar ko ci diine ne ko damaa bëgg teg pacte ma ak yow li may waxtaan ak yow fii warut a génn du ma ko génne doo ko génne ndax maa ngi yooyu ku ko ci génne rek def nga loo xam ne yëfi naa feq la te naa feq baaxul gis nga fi mu woo Ousmane Sonko ñu wax la ñuy wax ba ñu koy wax Bassirou Diomaye Faye fekke na ko Bassirou Diomaye Faye mi nekk ci kaso bi ba ñuy wax wax ji mi ngi toog ma wax leen lu ngeen xamul jàpp giñ jàpp Bassirou Diomaye Faye dafa laale ak waxtaan ba Idrissa Seck ak Ousmane Sonko doon waxtaan ci kër Ousmane Sonko Bassirou ngi toog waaye li ki day waar mooy Idrissa Seck dafa laxas ñoom Macky Sall laxas Ousmane Sonko dafa jàpp ñoom Macky Sall ak i Marème ne leen mën na maa dem waxtaan ak Ousmane Sonko làmb ko fexe ba lem ko ba li ngeen bëgg ci moom ngeen am ko waaye nag du ngeen ma wax lu ma koy wax. du ngeen ma wax fu ma ko jaar loolu man maa koy defal sama bopp wax leen ma li ngeen bëgg rek la ma koy wax ak fa ma koy jaar loolu moom du leen ko wax ñoom ñu wax ko li ñu bëgg yëpp mu xam ñoom li ñu bëgg ci Ousmane Sonko xam xam na leen yulli leen ba ñu wax mu dem ca Ousmane Sonko wax ak Ousmane Sonko moom Idrissa Seck wax ak Ousmane Sonko loo xam ne bu ko waxee ak Ousmane Sonko moom njariñam lay doon ba noppi ne Ousmane Sonko maa ngi yow li ñu wax na yem ci suñu diggante bu ko ñett yëg. nañu nekk ay gor yoo xam ne yàlla seede nañu ñu nekk ay jullitu xàqan yoo xam ne li ñu nas ki suñu diggante ku ko ci génne rek yor nga benn ci jikko yi yow salaa yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ku ko am naa feex nga mooy ñaari jullit yu waxante secret képp ku ko génn ci ñoom ñaar yor na benn ci ñeenti jikko yi nga xam ne moom la ñuy ràññee am naa feeq <laughs> laxas na Ousmane Sonko takk na ko bam ne kodd mu téye wax ak Ousmane Sonko loo xam ne jotewul dara ak la mu ne Macky sàll su ma demee ci Ousmane Sonko danaa ko wax loo xam ne dana leen amal njariñ yow ak sa jabar ak sa goro li ngeen bëgg wax leen ma ko waaye la ma koy wax ba ngeen am li ngeen bëgg moom duma leen ko wax fii loolu maak moom ñoo cay wax su ma demee ba dellu si nag wax leen mu ne pëyi jóge fa dem wax ak Ousmane Sonko tënk nas mook Ousmane Sonko affaire bi fuité yenn presse yi génn na woy Ousmane Sonko Idrissa Seck daje nañu am na sax ku wax na Idrissa Seck lii la wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko wax ko lee loolu yëpp ay waxi làmbatu la daje bi moom am na waaye lii la ñu wax ak la ñu wax moom ay làmbatu la léegi nag Idrissa Seck nag léegi nag am na taxawaay am na fum taxaw mu ngi ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ay gorom fexe na Idrissa Seck ba taxaw ci diggante bi déglu leen bu baax li ma leen di wax ana waa TikTok TikTok ñoom bariwul leen di kenn nekku fi tey Idrissa Seck dem wax ak Ousmane Sonko génnaat def point de presse dal ci ko Ablaye Wade dal ci ko Karim wax wax wax wax wax wax lu ne mu yàq leen waaye laalul Macky de Macky Sall doon xas ca fond Taïwan ya Macky Sall ba doon xas bi mu nekkee ci opposition bi li mu yàq Macky Sall yëpp wàccaa càccax yi tapet laag mboqat laag moo def la yëpp du ko de bi yoon du tudd Macky Sall moom bi yoon Karim lay dal ak Ablaye Wade waaye ñoo yem daal dina journaliste yi lu leen fi mooy la ma wax ak Ousmane Sonko ngeen bëgg a xam ne leen tekk rek loolu laay mujje daal wax a wax ba noppi nag bañ ca accès ne loolu nag du ma ko wax la ma wax ak Ousmane Sonko du ma ko wax wax jooju waxu ko journaliste yi waxu ko sénégalais yi wax ko Ousmane Sonko gis nga wax jooju Macky Sall la ko moom ak Marème ak i yaayu Marème ñoom la Idrissa Seck doon waxal comme dañ koo bëgg a liquider Ablaye Wade dëkk Macky la ngay waxtaan te Ousmane Sonko jubluwu ko ndax war na Ousmane Sonko benn yoon il faut que mu jouer benn jeu boo xam ne boo ko defee day taxawaat ci digg bi. ndax amna wahak lu mu wax ak Ousmane Sonko lo xamne ñom ñaar képp ñoko xam waye amna lu mu dik Macky Sall ci dem bi mu séti Ousmane Sonko lo xamne ba tay ji waxagu ko Macky Sall Macky ngi koy top nan ko lo fa jëlé mu ne ko lama fa jëlé mëna guma lako wax ndax man ak Ousmane dañu suñu pacte te pacte bi mënu mako trahir <laughs> wax neena wax nak Sonko te la wax ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko mënu ko wax parce que jox nako kaddom nako duma ci duma ci wax waaye dem na ci Macky sàll Macky ne ko loo jëlee ci Ousmane mu ne ko la ma fa jëlee mënuma ma la koo wax ndax ba ma demee di ko wax daf na ma lii na yem suñu diggante mënut a génn pacte bi bu ko bu ko kenn romb léegi Macky ma ngay pëyi pëyi bëgg a xam xamul sun ko xam na Idrissa sekk xam na. Idrissa Seck mënta wax la mu wax ak Ousmane Sonko ndax jox na ko kàddoom Ousmane Sonko mënta wax li mu wax ak parce que jox nañ ko kàddoom Macky Sall mi ngi bëgg a xam te mënta xam may déglu yéen a ngi a xam te a xam kumpa. waaye Bassirou Diomaye Faye moom xam na Bassirou Ousmane Sonko buy def day woo Basirou mu toog Ousmane Sonko lu mu def day am seede amul lu mu def moom kott amul fu mu dem dina am ku mu xëcc ci gaay mi teg Basirou nag moom la xëcc mooy toog Basirou fekk na waxtaanoo xam na lépp Basirou Diomaye Faye mii. bi Macky sàll gësamee ak ñoom Marème ñu gësam gi isi idi gësam idi na kecc ne man mënuma trahir kii bi moo ko tey bu ko neexee trahir ko parce que gëmu dara mais dafay joué ci Macky Sall. dafay bëgg a wan ne Macky Sall maag Idi maag Ousmane nas nañ loo xam ne boo boo ma dégluwul rek ñu sot la. mag ngay pëy yi pëy Idrissa Seck yëfi bandi la def Macky legi léegi Sonko mi ko recevoir nag moom moo dugg ci mbir mi moom te lépp nga jóge ci dalal gi mu ko dalal képp bu ko dalalu woon nii du am mais dalal gi mu nangu ko dalal Idrissa sek ci la Idrissa def piège bi ndax dem Usman kër Ousmane Sonko waxtaan nañu xam noo koy weddi Bassirou Diomaye mënu koo weddi Sonko mënu koo weddi parce que dañoo joxe seen kàddu léegi nag Idrissa Seck nag am na paaka nag boo xam ne Ousmane Sonko moo ko ko may parce que moo ko dalal paaka boobu nag pour rendi Macky Sall la waaye paaka bi Ousmane Sonko ko daas Ousmane Sonko lay daas pour xoqatalee ko Macky Sall léegi Macky Mariam ñoom ñëpp bës nañu bës bës bës bës bës bës Idrissa Seck nanguwut a wax la mu wax ak Ousmane Sonko ñu ne nañ jëm jëli Bassirou Diomaye Faye ne ko ciix xoqatal ko jàpp ko def ko ci kaso bi jël ay téléphone am puus ko ba xam dina wax moo tax ñu ngi ko yóbbu retour de parquet ñu ngi ko def ay enquête bu ñu génnee enquête bi bu ñu génnee interrogation bi ñu def Bassirou Diomaye Faye laaj yi ñu ko laaj da ngeen ci gis bu fekkante ne lépp génn na dana ca bokk sa téléphone lan moo ci nekk ndax fekk nga bi Idrissa Seck ak Ousmane Sonko toog lan lañ fa wax yooyu yëpp moo tax ñu téye Bassirou jamaay fay parce que Bassirou fekk na ndajama Ousmane du jël benn risque nuyu ko sax depuis dossier Adji Sarr ba léegi lépp lu Ousmane Sonko di defati politiquement waa Pastef dañ ko forcer exiger ko ne ko il faut que am ñëw teew mu am ay seede duñ la bàyyi yow képp ngay topp ngelaw li mel na garab léegi dañuy taxaw motax tax ba Idrissa Seck ñëwee kon Ousmane Sonko ay seeda am ngi fa te Bassirou jamaay fay fekk na lépp fekk gi mu fekk nak te ñe xamuñu Ousmane Sonko xam marem Kumpa maki Kumpa ñu ne nañ dañ jàppi Bassirou xoqatal ko Bassirou victime la fekk gam fekke te Ousmane Sonko waxul Idi waxul te maki bëgg xam ak marem loolu lañ bëgg a gësamee Bassirou moo tax ñu yóbbu ko ci kaso bi téye ko ñu naan bi mu def ak magistrat yeeg patati patata dañu leen di nax loolu lay la loolu lañ ko mbubbee parce que booy sàcc il faut que nga ne damay root fekk da ngay sàcc ndox il faut nga wutal ko aw lay pour làpp tey ñi nga xam ne xamuñu la soo ñun dañ leen di sëlëm Oui, parce que Bassirou Diomaye def la clochardisation des magistrats mais clochardisation des magistrats loolu Ousmane Sonko wax na ko ba tey ñëpp wax nañ ko les magistrats sont des clochards ñëpp a ko wax loolu moom du loolu kenn du jàpp kenn loolu moo am di loolu taxul de loolu mbubb la dañ ko solo mbubb moo xam ne pour sëlëm leen li ñu ko jàppee mooy dañ ko bëgg a jàpp profito utal ko aw lay ne dafa saaga magistrat yeeg yu kenn xamul ay tappale li ñu bëgg mooy pousse ko xoqatal ko bàyyi ko ci violon bi pendant trois jours def ko ay retour de parquet pour mën a dugg ci téléphone am pour xoqatal ko pour mu am lu mu lâché am lu mu bàyyi parce que bëgg nañoo xam Ousmane Sonko ak Idrissa lu ñu seq ak lu ñu wax. loolu amee Idrissa Seck jóg dem kër Bassirou Diomaye Faye ca dëkk Ndiaga ñaaw dem di leen massawu dara ci dox day parce que Idrissa Seck xam na li tax ñu jàpp Bassirou Diomaye Faye xam na ne Bassirou Diomaye Faye lu mu wax ak Ousmane Sonko Bassirou xam na ko. léegi Idrissa Seck bañ Bassirou Diomaye Faye senn ca police ba dig ba bañ Bassirou Diomaye fay wax la ñu wax parce que loolu arrangé wu ko parce que moom loolu aw yat la wu muy dóoree Macky Sall tant que mi ngi nekk kumpa muy am lu mu téye ci contre Macky Sall bañ Bassirou Diomaye Faye ñu xoqatal ko ca kaso ba muy mu yulliku moo tax mu daw dem seeti ay mbokki Bassirou Diomaye Faye ne leen na maag yéen a ànd joxe fa xaalis pour wax Bassirou Diomaye Faye attention de la ñu waxante maag yow ak Ousmane Sonko bu mu seen lu la gaa yi xoqatal xoqatal bul génne teel maa ngi ci sa mbokk yi fii

te Usman Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñoko may Idrissa Seck waye buñ nako won dala luñ la coow lu jeex ndax amna ben kilifa diine bu maga maga maga maga mag actuellement ni mi ngi daw ci Usman Ousmane Sonko fu toog ak mom Ousmane Sonko lank lànk noonu mu bañalee kilifa diine bobu toog ak mom bu lànkoon ne du toog ak Idrissa Seck du may Idrissa Seck paaka ñaari bor bo xamne mom lay tek ci ko Ousmane Sonko tek ci ko Macky Sall parce que Idrissa Seck deena ba deena ba noppi Ousmane Sonko ak basiru Diomaye fay ñoom ñoo def ay erreur politique toog ak Idrissa Seck moo tax Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye surtout Sonko Pastef dañoo am intérêt ñoom li ñu seq ak Idrissa Seck ñu génn wax ko askan wi dañoo am Ousmane Sonko Pastef da ngeen a am intérêt en urgence lu mu gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw ngeen génn wax askan wi lan ngeen seq ak Idrissa Seck bu ngeen ko deful seen crédibilité da ngeen ko yàq Idrissa Seck mi ngi dox ci seen xel di liggéey ci seen xel te askan wi dinañ génn ci li lii laaj bi may def loolu moo ma def ko ne Ousmane Sonko dafa war a génn wax ak sénégalais yi lan la seq ak Idrissa parce que ñun wóoluwuñu Idrissa Seck ànduñu ak Idrissa Seck bëgguñu Idrissa ñu gëmuñu Idrissa Seck Ousmane Sonko nag bu fekkee day tëjoog Idrissa Seck di am lu muy nas ak Idrissa Seck di ko nocci ba Idrissa Seck jël loolu di ko chantage ak sàll ñun loolu taxul ñu topp Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa war a leeral diggante ba Idrissa Seck amul noppi. li wax nii c'est solennel je m'adresse à Sonko président de PASTEF. dafa am obligation daf ñu amel ñun askan wi xeex di dee bés bu nekk ngir moom di def suñu alal di def lépp ñun duñu dund ci kumpa parce que moom Ousmane Sonko tàmmaluñu kumpa bañ ko xamee ba léegi lu mu mas a def daf ñu koy wax mu leer ñu xam ko mu wax ñu ñu xam mu woñu ñu ànd ak moom parce que li mu xam dañu koy xam fi mu jëm ñu xam ko mu leer nañ bu fekkante ne woon sax day tëjoog ñu jub mën nañ koo bàyyi mu teg ay kumpaam mais ki mu ko seqal dafa dëng di Idrissa Seck moom Ousmane Sonko moo ne Idrissa Seck ku dëng la ndax ba ñu defee élection 2019 yi suñu ay pacte ñu ne dañuy bañ élection yi duñu reconnaître Macky Sall Ousmane Sonko ko wax may dégg Idrissa Seck dafa war dafa jël kàddoom la mu signé woon yëpp respecté wu ko dem fekki Macky Sall Ousmane Sonko yaa ko wax donc il faut rester cohérent et constant ku mel noonu Ousmane Sonko mënoo ñëw tey daje ko daje nga dalal ko sa kër ngeen julli seen i fajar wax seen ba noppi ne moom mu génn ne daje na yow wax na ak yow te la mu wax ak yow mun du ko wax moom su ko waxul yow nga wax ko ndax moom Idrissa Seck bu newul woon daje naa ak Sonko këram julli naa fa fajar nii laa fa demee léegi su ko waxul woon kon ay wax rek a fiy nekk ñi naan dem na ñi naan demul Ousmane Sonko recevoir na ko recevoir na ko waaye Idrissa moo génn na moom yow Ousmane Sonko yaa ko dalal te man am naa xibaar na Bassirou Diomaye Faye ma nga fa woon. li ñu liggéey yëpp na ba agsi fii Ousmane Sonko bu fekkee yow wax ak Idrissa Seck daf laa gënal. sa ñi la top ñëpp nga bàyyi leen ci kumpa goo xam ne Idrissa sekk moo ko sab moo ko sabab te ñun xalaat bi ñu am ci Idrissa sekk bu ñu ko wóolu woon duñ la topp bu ñu gëmoon Idrissa sekk wala war a toog ak moom duñ la topp yow Ousmane Sonko yaakaar bi ñu am ci yow nag du ñëw ba agsi fii nag ngay tëjoo ko Idrissa Seck di wax ak moom loo xam ne moo génn taxaw def point de presse am wax fi mu ñëw sa kër na mu fa ñëwee la mu wax ak yow ne du ko wax waaye dana dem ca Macky Sall boole nag di la naan la boo bëggee mu jàppale la yow am na loo xam ne il faut nga jóg taxaw wax ko pour mën laa jàppale mu mel ne moom ndimbal li nga soxla yow Ousmane Sonko dafa nekk ci loxoom mu mel ne moom moo yor caabi yi diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall Idrissa Seck mooy arbitre bi mu mel ne Idrissa Seck dafa am doole joo xam ne moom tey bu bëggee nga nekk candidat nga nekk ko su bañee nga nekk candidat doo ko nekk lan nga ko may loolu mooy mooy dalal bi ko dalal yaa ko may doole yow Ousmane Sonko yaa wëlbati ko may Idrissa Seck doole ba mu taxaw di ba mu ñu fontoo ñun. Ousmane Sonko yéen militant ñun ñëpp dañoo am obligation taxaw woo ko mu génn wax ñu lan la wax Idrissa Seck parce que ñun wóoluwuñu Idrissa Seck ñun moom Ousmane Sonko la ñu wóolu. koolu te googu ñu am ci moom nag mësuñoo war mësuñoo wax lu amul mësuñoo nëbb dara daf ñu amel wax ñu Idrissa Seck gën na wax kumpa fi nekk yéen ñëpp yéen a ngi am kumpa Ousmane Sonko lan la war a wax a Idrissa Seck ba ngeen dégg ñu ne def ko daanal yéen ñëpp waxu leen ko waaye yéen ñëpp am ngeen leen naqari ñëpp ëpp ci patriotes yi ñi ëpp ci citoyens yi ñi ëpp ci sympathisants yi kontaan nañu ci toog bi Ousmane Sonko toog ak Idrissa Seck gëmuñu loolu kon Ousmane Sonko actuellement nii ñi ànd ak yow ñi ci ëpp ñi ngi taxaw di la déglu di la xaar da leen a amal gindi gindi leen ba ñu xam lan moo xew parce que mënoo toog ay wuyu ay bandi yu ma ne di di sekk ñuy ñoom ñuy génn di wax di wax lu leen neex te doo ko weddi kenn ñun ñi mënuñu ko weddi Idrissa Seck li mu wax mënuñu ko wuñ ko mais wóolu wuñ ko suñu xel yi li mu gën a jàpp mooy ay tappale lay def li muy def day nasa ko nocc yow Ousmane Sonko mënoo xam loolu ne pat bëgg yor réew mi déedéet tam lañu lolu xamuñu lolu liñu xam lolu lañu xam moy lu leer lolu nga jaay sénégalais ba sénégalais yépp paré pour dé ngir yow voilà mënuñu jogé ki dossier Adji Sarr ñëw ki dossier Mame Mbaye ñu bëgg ñu indi dossier Idrissa Seck encore ci ay tëju di wax ba Bassirou jamaay fay nekk ci victime collatérale ndax dafa teew ñëw toog tey ma nga ca kaso ba ndax loolu daje boobu moo tax ñu jàpp Bassirou Diomaye fay pour bëgg xam lan moo xew parce que Idrissa Seck mooy teg deal Macky Sall bëgg a utiliser Ousmane Sonko pour loolu Ousmane Sonko dalal ko. ma ne man forcé wu ma kenn samay xalaat ku neex nga gëm Ousmane Sonko ku mu neex la Ousmane Sonko def baax na ku mu neex Ousmane Sonko yàlla la kenn ku ne yaa xam ni nga jàppee Ousmane Sonko lu mu def na la neex loolu man sama problème man damay jàppale Ousmane Sonko sama xalaat laay wax man maay taal maay laay fi yow kii ki nga xam ne moom gisul loolu yow waxoo taaloo am nga droit ne Ousmane Sonko lu mu def neex na la on est en démocratie. man maay wax man li Ousmane Sonko nekkee ak Idrissa Seck nii c'est pas sûr c'est dangereux pour le projet c'est dangereux pour Pastef man naa ko wax te maa ngi koy lay man ay lay laay indi di indi ay argument yow mi ne wuy Sonko lu mu def baax na indi woo fi dara yow ab al toppe nga ab lappato nga am nga ci droit nekk lappato yow indi woo benn argument indi yow protégé woo projet bi yow bu Ousmane Sonko bu daanu woon ak projet bi da ngay ànd ak moom daanu man nag Ousmane Sonko ànduma ak moom pour muy daanu projet bi moo gën Ousmane Sonko moo ko mag. parce que projet bu fekkee Ousmane Sonko la bis Ousmane Sonko dee fu jëm li ñuy toppee Ousmane Sonko ab xalaat la gisin la yéene la liggéey la soqali réew mi la du benn nit du jëmmam jooju la ñuy topp kon dañ ko war a dimbali man boog sama wàll laa ciy bàyyi man nekkuma fi di wax lu neex Ousmane Sonko lu neex diw de man li may wax yépp day nekk luy mu projet bi ba projet bi mën a taxaw ma gis ki sama bopp ku ne gis ki sa bopp man loolu moo tax ma ànd ak Ousmane Sonko ànd maag moom du ma bàyyi faalam du ma taalibeem du yàlla du yonent bi il faut que mu leer seen bopp yi yéen ñiy wax ñëpp woy Sonko lu mu baax lu def da ngeen a ñëpp Ousmane Sonko bu toolaan bu defoon live ne Idriss Seck dafa maa bëgg a gis sondage yéen patriotes yi est-ce que d'accord ngeen pour ma toog ak moom waaw quatre-vingt-dix-neuf pour cent patriotes yi du ngeen ci ànd da ngeen naan ko président bul toog moom loolu mooy dëgg nit naafeq moo tax mën leen a gëm yàlla du ngeen ay jullit ay naafeq ngeen da ngeen xiifal wooru leen wu leen da ngeen gymnastique du ngeen ay julit ay nafiq ngeen li ngeen and ak Ousmane Sonko gëmu leen ko ci musiba ngeen ko duggal parce que du ngeen ko wax dëgg nit boko ko da nga koy wax dëgg kon man ak yow mi may déglu ñun ñëpp dañoo am xalaat ci li bëgg dégg ngeen bu ngeen di jaay ay bracelet ñëppay jënd ngeen contact bracelet yi kii jënd bracelet bi moom bu ko jënd da nga contact mais bu amee xalaatam ci ni ñuy doxalee nga ne pourquoi mu warut wax pourquoi muy wax xalaatam ay dictateur ngeen pourquoi nit ñi mënuñoo am xalaat li ma wax man ci Idrissa Seck ak Ousmane Sonko mais dama bëgg projet bi mucc dama bëgg Ousmane Sonko mucc ndax Ousmane Sonko bu amee jafe-jafe ñun ñooy sonn ba mu amee jafe-jafe ak Adji bo ba léegi ñoo fi nekk di xeex bi mu amee jafe-jafe ak Mame ñoo fi nekk di xeex duñ ko bàyyi mukk mu tooñ comme ñu tooñ ko dañuy taxaw xeex moom mais ku mën a def loolu def ki sa alal def ki sa doole def ki sa bakkan nit ñi de ngeen na bu defee loo xam ne defuwul duñ ko taxaw ne ko lii waree ko def ban ànd la ñuy ànd ak moom àndul naa feeq bu bu defee lu baax ñu tàcc bu defee loo xam ne njuumte la ñu tàcc bëggoo Ousmane Sonko yow yow bokkuloo ci ñi ngir dimbali Ousmane Sonko ngir mu réussir la mission bi mu yore yow naa nga. déjà am ay conséquences dajé bi dajé ak Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye nga te kaso ba loolu déjà conséquence la déjà ñoo ngi ñak ñàkk nañu benn pilier benn pilier ci passif ma nga ca kasso ba à cause de ça ay euh, poste bi nga def ak clochardisation des xawma lan loolu ay lay la du loolu motax tax ñu téye kon loolu il faut ngeen xam ko. Idrissa Seck demul njaga ñaaw di wax ak wa njaga ñaaw par hasard de mission lay lay Bassirou Diomaye lay waxal ci kasso ba man samay wax jàllu muus la je ne suis pas un émotif oui tàccu man du talibé taalibe kenn du ma kuy top ci ginnaaw nit di lambar lambar yi déedéet je suis pas comme ça moi je raisonne j'ai un cerveau j'ai mes réseaux j'ai mes informations je recoupe et puis je fais de la politique de la science politique pure avec Ousmane Sonko j'analyse et je donne mes points de vue je suis pas comme vous dossier bi Marème fay Sall moo ko téye Bassirou Diomaye Faye Marème fay Sall moo ko jàppalu moo woote ñu dem jàppi ko Adramé Dramé Adramé Sarr commissaire DIC moo dem jàppalu Bassirou Diomaye Faye Adramé Sarr commissaire de police divisionnaire moom lañ moo nekkoon Ziguinchor ñu indi ko léegi Dakar jox ko DIC corrompu Marème a koy jox ay ordre direct mu dem jàppalu Bassirou Diomaye Faye 22 heures toppatoo wuñu ay yoon parce que ordre bi ci Bassirou ci Marème lay jógee. parce que Mariam bëgg na xam ba Ousmane Sonko ak Idrissa Seck lan la ñu waxtaane te Basirou fekke na ko comme ñemewuñu Sonko parce que laax bu tàng la Idrissa Seck mi ngi mi ngi leen di chantage parce que moom benn boo ko yaakaar la bokk day xaar Macky Sall dàq ko ñoom ne nañ nañ ko dàq wala na tekki ay ndomba tànkam Idrissa Seck comme ni ngi critiqué ne candidat la na tekki ay ndomba tànkam ci liñ ko jox léegi weexul ñuulul mi ngi mu ngi joué c'est normal c'est politicien c'est normal il est dans son rôle Je ne le critique pas il Idrissa Seck on a rien de Ousmane Sonko pour taxaw ou de Macky Sall pour jàll mais da def il est dans son rôle c'est un politicien. Lolé, lépp nak dafa am impact ci renvoi bi ñu procès bi dafa lënkaloo ak audience boobu lënkaloo ak jàpp gi ñu jàpp Bassirou Diomaye Faye lépp tout se parce que c'est Marème Faye Sall qui qui gère lii laa bëgg awma ko nañ def lii ah waaw lii lañ ma dig kon nañ xaarandi ah quelqu'un Marème moom ci yooyu lay dox Marème topp xamul ay procédure pénale xamul déedéet fu yëf yi toll Ousmane Sonko li kër parce que Sonko moo leen tee nelaw Marème Faye Sall Ousmane Sonko moo ko tee nelaw fi mu toll nii Idrissa Seck ne leen mën naa ki dara lu tax mu wax loolu Idrissa parce que jàpp gi mu jàpp ne bu demee fëgg Ousmane Sonko Ousmane Sonko dina ko recevoir loolu képp doole la ci Idrissa Seck doole bu mag que am na benn sëriñ bu mag bu ma xam du ma tudd que fi Sénégal moom sëriñ si ay yàlla lañu koo fi tudd turam léegi waxtaan bi yàqu te pourtant j'ai envie de donner le nom mais su ma ko waxee léegi léegi ma wax yëpp dañ koy fàtte léegi sëriñ boobu la ñuy wax léegi nag foofu la waxtaan bi tuuri waaw dafay saaga kilifa yi patati patata ak weeru koor gii yàlla xam na ne li may wax moo am sëriñ diw mi ngi wër ci ginnaaw Ousmane Sonko pour toog a Sonko Sonko lànk parce que Sonko xam na ne sëriñ boobu àndul ak moom da koy xeex day ànd ak Macky Sall di teg dil que bu toogee Ousmane Sonko njëriñu Mariam Faye Sall ak Macky xam na ko mu lànk waaye léegi naka la Ousmane Sonko mën a bañalee boobu toog moom parce que xam na ne sëriñ boobu ak Macky Sall ki Mariam ñoo ànd mu jàpp ne Idrissa Seck ak Macky Sall ak Mariam ànd ba muy toog ak moom pourquoi logique bi ana cohérence bi non du ma wax léegi damay ñun nee nañ ma ñu bari nañ ma bàyyi di joxe ay tur parce que dama je me rends compte que amul njariñ parce que sénégalais ça fait la may def ni ngeen def ni ñëpp def léegi ni ñëpp def laa def damay junj dama tudd tur parce que réew mi noonu ngay dox noonu la doxee da ngeen di sacrifier nit ñi bu nit ñi wax ngeen naan kër kër léegi damay nëbb damay nëbb comme ñëpp parce que yéen ñëpp da ngeen nëbb kenn du joxe tur joxe leen tur joxe tur yéen ñi ma koy wax kenn du joxe tur léegi joxe tuma tur léegi dama naan sëriñ rek wala mën a nit comme comme réew mi réewum naa fekk la looloo fi am noonu lay def comme ñëpp nëbb Pastef dañuy nëbbatu Ousmane Sonko ngi wax Idriss Seck di nëbbatu Idriss Seck ngi nëbbatu ñëppay nëbbatu ak keneen toon tamit day nëbbatu parce que réew mi noonu lay doxee làqatu nëbbatu naafiq Non, il faut arrêter de dire que Idi est venu par surprise chez son corps. On ne va pas chez les gens par surprise à 5 heures du matin. Il faut arrêter ça. nit dem c'est pas surprise da dem normale 5 heures du matin heure ñu julli heure fajar kenn du dem di dugg ci par hasard heure heure du heure sax ngi 5 heures du matin mais nit du ko séti nit loolu bu dañ ko il faut arrêter sen une yi ñoo dul tourner nit day mu nekk heure du heure fajar du heure bu dem ci kër yi nit te il faut arrêter bon léegi ñoom ñoo xam lu tax ñu def ko ñoom ñoo wax ak Idrissa Seck la wax ak Idrissa Seck ñoo ko xam man xawma ko rek neex la Idrissa ak Sall ak Ousmane Sonko waxante Bassirou Diomaye Faye fekk ko ñoom ñoo ko xam man xawma ko voilà waaye man dem gi ak dalal beeg toog bi rek dama ko rafetluwul man ànduma ci loolu lépp nag lii lii nii moo yeexal gouvernement bu bees bi nga xam ne bi ñu defee 4 avril bi ba noppi dafa taxaw ñi ngi def ay consultation pour taxawal gouvernement mais lii may wax nii moo ko téye Idrissa Seck bi war a waxtaan ak Ousmane Sonko lam fa jëlee mu téye ko waxu ko Macky Sall Marème bëgg a xam xamuñu Ousmane Sonko xam na du wax parce que nee nañ du wax moog Idrissa Seck ñu war a taxawal gouvernement Idrissa Seck la ñu dikk poste premier ministre bi waaye wóolewu leen wax na ko ciy waxam nee na kenn du xam lépp wax lépp. te am na foo xam ne bu ñu fa jëmee te àggaguñ fa doo génne lépp deful de xam nga moom sax tabaxal na leen ay wax ci biir wax parce que nee na Macky waxagul xamuñu fu mu jëm mais man tamit damay cabaxal Idi day cabaxal fi mu toll nii a ñun li ñu Idrissa Seck def fi ñu jaar ak Idrissa Seck élection 2019 Ousmane Sonko xam ko génn wax ko ñun ñëpp ñu xam ko mu naqare ñu Idrissa Seck dem fekki Macky Sall ñu def seen mburoog seen soow pan ponse taxaw di kookule Ousmane Sonko def ay campagne contre Pastef Idrissa Seck génn wax wax yu ñagas Ousmane Sonko sax démb gis ngeen ni wax Ousmane Sonko nee dig dig bi dañ nako ko cippet par force waaw moom bu nekkon place Macky Sall reyna Ousmane Sonko bu yag deg ngeen Idrissa Seck ni mu doon waxe ku mel noonu moy taxaw ñu ne wax na ak Ousmane Sonko lama wax Ousmane Sonko pact la mom du wax Ousmane Sonko deg Idrissa Seck wax mu ne pact on fait la politique autrement dafa am benen façon bu ñu defee politique te loolu Ousmane Sonko daf ko dugal ci bopp nit ñi taxawaay bii ma am ni taxawaay bii ma am ni esprit critique bi ma am ak di wax sama xalaat ci li Ousmane Sonko def ak Pastef loolu Ousmane Sonko moo ci woo Sénégalais yi moo leen ci woo moom moo ci woote ba nit ñi yeewu moo ne nit ñi il faut ñu yeewu il faut que ñuy xalaat di wax seeni xalaat Ousmane Sonko moo ci woo nit ñi yow nga ne kenn du ko fi wax yow yow yow yow làppato bi kon gouvernement bi war a wàcc Amadou Ba war a dem te Amadou Ba demagul parce que lii moo tax ñu war ko wàcce jox Idrissa Seck poste premier ministre bi waaye Idrissa Seck poste premier ministre bi pour ñu mën ko koo dañ ko koo dig waaye pour ñu mën koo signé nag jox ko ko il faut que wax lan la wax ak Sonko il faut que mu wax lan la d'accord ak Sonko pour ñu mën koo jox poste premier ministre bi wàcce Amadou Ba jox ko Idrissa Seck Amadou Ba yëg na loolu ma ngay manoeuvrer ndax Oumar Youm président groupe parlementaire bi ngeen dégg muy taxaw di wax di dal ci kaw Idrissa Seck moom ak Amadou Ba ñoo ànd àndul ak Macky Sall Macky ko jox président groupe parlementaire bi pour téye ko mais Oumar Youm est un rebelle dafa am contentieux ak Macky Sall ak Marième Faye Sall moom ak Amadou Ba réeroo wuñu ci biir assemblée bi moo tax mu génn tey di dal ci kaw Idrissa Seck. Oui, Idrissa Seck dafa attaquer Ablaye Wade patati patata oui bu fekkente ne lii muy wax yëpp dëgg la ci moom na génn joxe ndoom ba tànk yi ñu ko dénk bu fekk dafa bëgg amaduba nekk candidat day indi problème ci benn bokk Amadou Ba Omar Youm Amadou Ba parce que Amadou Ba xam nañ ne poste bi dañ ko bëgg a jox Idrissa Seck te Idrissa Seck ni ngi xeex pour nek candidat wu Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba loolu la bëgg donc Amadou Ba Idrissa Seck ay ennemi lañ ay non lañu Idrissa Seck ak Karim wadd ay noon lañu Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade ay noon lañu Macky Sall bëggul Karim bëggul Idi bëggul Wade bëggul Amadou Ba bëggul kenn carte gi moo jaxasoo carte gi du du mënuñu ko jouer trèfle mënuñu ko jouer cœur mënuñu ko jouer pique mënuñu ko jouer sans mënuñu ko jouer tout carte gi dafa lëbëjoo kenn xamul nu ñu koy wuree ñu dugal ci Ousmane Sonko nag moom ndax Idriss Seck ku ci dugal. J'espère, j'espère que après weeru koor bi Ousmane Sonko xayna dina génn parce que mom tamalul nit ñi ne to japp jàpp rek wax mom lepp lu mu def bu ci ciow amé day génn leeral né li mo am ak li parce que loola muy def dafa am lu mu koy jural moy kóolute day tax nit ñi am ci mom confiance confiance bi nit ñi am ci mom lan la wax waram parce que lu mëna xew day taxaw né li mo am lila la def defuma li loolu la tamal Sénégalais ba suñu logiciel yi tam loolu kon bu ciow amé turam nekk ci. Idrissa Seck ab suñu noon parce que du àndu la ñun suñu noon la wana wana na suñu noon bu génnee di wax toog naag seen leader Ousmane Sonko bi ngeen bëgg a fal maag moom tëju nañu guddi wax suñuy wax bu ca yemoon sax ñu ne waaw waaye dafa wëlbatiku moom di tuumaal Ousmane Sonko wëlbatiku di ko chantage boo waxee boo génnee wax lii ak lii ma jàppale la sa kan mu mel ne candidature usman Ousmane Sonko léegi nekkatul affaire justice mu mel ne nekkatul lu naturel léegi affaire politique la léegi chantage la léegi Ousmane Sonko dafa am nooy def pour que nga nekk candidat defoo ko doo nekk candidat léegi candidature bi léegi nekkatul loo xam ne loi moo ko réglé candidature bi nekkul code électoral bi moo ko réglé candidature bi léegi nekkatul constitution bi moo koy fixé candidature bi nekkatul sénégalais yi ñëw koy bëgg candidature bi léegi Idrissa Seck moo ko yor ci loxoom Ousmane Sonko ne pat jàpp njàmburam mais c'est ubiesque. non xam nga Ousmane Sonko bu waré wax ak su warul wax man damay wax su waxé après tant mieux su waxul tamit man lima wara wax nak xam nga man sama wareef wul dara ak waré Ousmane Sonko man waxuma pour mu forcer ko wax dé, man mënu mako forcer au bi sama xalaat lay wax ci limu jëf bu ci dellusee wax ci alhamdulilah bu ci waxul tamit ma respecté kàddoom xam ne waxu ci mais man d'accorduma ci loolu il faut que mu leer ndax dama cee am wàll dama cee bokk yow mi may déglu nga bokk ci su la neexee yow nga bàyyi mu sedd mais man mënumaa bàyyi mu sedd dafa war a leer li tax mu war a leer mooy Idrissa sekk mi ci wax moo tax ma bëgg Ousmane Sonko wax parce que bu ci waxul woon Idrissa Seck du ma ci wax mais dafa génn wax wax ba noppi nag tiiñal Ousmane Sonko wax ba noppi nag wax wax ba noppi teg ci ne day jël suñu alal. ji nekk ci ndomba tànk bi ñu ko jox conseil économique social environnemental mu jël ci xaalis dem ci 46 départements yi nekk ci biir réew mi def fa ay lël ay daje yoo xam ne day laaj sénégalais yi ndax pare nañu pour fal koo xam ne dañu ko jiiñ ne dafa sàkku jigéen dafa siif jigéen Ousmane Sonko lay waxal de léegi dañuy suñu alal dem di ci laaj sénégalais yi ndax pare nañu pour fal ku ñu ku ñu tuumaal siif jigéen Ousmane Sonko lay waxal de te ki wax lii nee na moom moo dem julli ak Ousmane Sonko fajar ñoom ñoo julli ba noppi fajar mu génn moom Idrissa sekk léegi ne day laaj sénégalais yi ne kii mu jullee ndool fajar ci këram Ousmane Sonko moom dañ koo jiiñ ne dafa sàkku dafa siif jigéen ndax sénégalais yi pare nañu pour def ko président waaw wala déet Idrissa Seck mi naan qaala allah wa qaala rasul Idrissa Seck mi dem ak Ousmane Sonko fajar moo génn ne moom comme Ousmane Sonko dañ koo tuumaal njaaloo te mu xam lan lañ yàlla wax ci ku ñu tuumaal njaaloo lan mooy atte yi ak lan mooy seede yi ak condition yi war a daje ba tuuma ga mën a taxaw bañ mën koo atte Idrissa Seck moom moo taxaw ne moom léegi day wër Sénégal léegi pour nja pour pour problème ci lo xamne mom Idrissa sek moko wax du man maa wax ne sek nako ak Ousmane Sonko muy ab secret secret bobu ñun dañ ko wara xam suñu xel mo tay ci Idrissa sek mais seen xel yi yéen du yëngu yéen xana yéen yoru leen ay xel wala yéen ay xel machine ngeen yore wala ay lan man man je trouve que peut-être yéen du normal leen quoi lima wax ni bu fekke amul lu mu jur ci seen xel ci ñaaw ndort amul lu mu jur ci seen xel ci jiixa a jaaxa kon yéen seen seen bop yi ay weñ ñoo ci nekk mais deret deret ak oxygène ne wu ci je vous pose la question en tout cas man ça va bi ça tourne Moi, tax ma dit ko wax fekkee ki yéen ak yéen seen bopp yi tourné wul kenn ku nekk xëy na yaham xam sa bopp li wiis ya fa nek xëy am na ñoo xam seen bopp yi dafa manqué ay wiis peut être may wax nag ne Idrissa Seck bii li tax ma wax ne Ousmane Sonko dafa war a wax loolu su ma ko waxee sama xalaatu boppale la du seen xalaat yéen de man dama am wàll ci mbir mi bokk ci am ci xalaat dama gëm ne Ousmane Sonko dafa dafa ma war a leeralal man waxuma sax yéen peut-être yéen ça va pas su ko waxul tam garaaw mais man dama war a Ousmane Sonko dafa war a wax man dafa ma war a dafa war a firi man sama bopp laay waxal parce que for naa ci weewu béy parce que léegi réew mi la ñuy waxee doone diw doone diw bàyyi naa joxe ay tur for naa ci weewu béy parce que loolu ngeen xam yéen léegi noonu laay def ak yéen bàyyi turi tur ci wewu bay non xam nga patience je suis parfaitement d'accord je suis patient Je waxuma na génn forcé wu ma non limay wax ni du lu forcer Sonko parce que tuuti n'a pour forcer ko forcer wu ma dara magum jëmm la bu xantene bax ci fi euh, fit yu mu am xel ni mu am xarañteef ji mu am ba taxawal li nga xam ñun ñëpp ñu gëm ko loolu du caaxaan donc du kumay sous-estimer waxuma ko pour di ko forcer pour mu wax non mooy xool agenda am xool time am xool ndax war na wax wala wër na wax loolee jotewul dara ak man sama xalaat ma wax ko sama xalaat lay wax la Sonko di def du mën naa ko koy wax li mu war a def moom xam na ko bu ko waree def dina ko def su ko wut def du ko def mais loolee lépp jotewul ak sama wareef man en tant que ku bokk ci mbir mi am ci xalaat wax ko bu leen jaawalee ay mbir bàyyi leen bu nit di wax ngeen di ko dóor ci kaw nit yaakaar na da koy forcer wala def ko non non non dama cee bokk am ci xalaat di ko wax légui damay def comme journaliste Pape Sané voilà très bien Pape Sané légui damay junj parce que réew lolu fi am ah. ak yow mo dof bi mom ci touri lay jaar ko defee ñu saga diko yak lu ne mbokk bi nang ko bàyyi tuddu touri sama mbokk yépp ñu bul di tudd tur man ngay wax li ngay wax mais bul tuddu touri mais wax nañ dëgg légui damay def na ñëpp duma tuddu tour parce que yeen ñi ma defal aussi ba c'est pas man tuddu tour pour ngeen xam parce que vous êtes curieux Sénégalais bi bëgg na xam mais li ngay def bu leen dara fekk do ko gis motax il faut être prudent maintenant voilà jëm parce que réew mi bo fa jubé do dem naa fekk lañu bëgg voilà kon del junju kon farna ci weewu bay ne Idrissa Seck mom dans tous les cas day nek candidat en 2024 quel que soit Alpha loolu mom signé na ko ba paré lu tax muy candidat parce que amna ño xamné ño koy financer te jël nañ ko def ko sen candidat ba paré ben lobby bu am doole ci réew mi lobby bu ngand ngand ngand bu nek ci réew mi boo xam ne lëbi boobu Afrique de l'Ouest gépp ñetti nit lañ fi amoon yu leen doon taxaw ci seen ay intérêt kenn ki Ablaye Wade la woon ak Karim benn bi ñaareel bi Ahmed Bakayoko bi nekk Côte d'Ivoire te ñu rey ko te mu dee Ahmed Bakayoko bu Alassane Ouattara moom moo doon liggéey ak lobby boobu ñetteel bi mooy kan mooy sa sa Seck Idrissa Seck Ahmed Bakayoko ak Ablaye Wade Ablaye Wade ak doom ji ñett ñi boo boolee ñoom ñoo doon liggéeyal lobby boobu muy lobby bu am doole Afrique de l'Ouest non Idrissa su bokkee du am dara loolu ñun ñëpp xam nañ ko ñàkk am dara gi xam ne Idrissa sekk amul dara moo tax bëgguñu ku ku tekkiwul dara ku amul dara waaye waaye di di di tokki suñu keppaar ñun ñoo la gën a xam ne Idy amul dara waaw ku tekkiwul dara amul dara Ousmane Sonko lu ma def ak kooku loolu mooy wax ji Idy tekkiwul dara mënta am 1 pour cent waaw lan lay dem di julli fajar kon Ousmane Sonko di fa wax wax joo xam ne yow yëgoo man yëguma mu toog woo presse bi yëpp ne dem naa kër Ousmane Sonko maag moom wax nañ fa loo xam ne du ma ko wax fii lan mooy intérêt bi ba muy wax loolu waxul ak Sonko de Macky Sall la doon wax. diko xamal nako waxna ak Ousmane Sonko lama wax ak Ousmane Sonko nak boko beugé xam yow Macky Sall il faut nga am do def ak man Macky lay wax waxul ak ñun waxul ak presse bi waxul ak yow Idi day communiquer Idi day communiquer Idi Idi doful de limi def lu mu xam la limu def moko ko Sonko dàq ko Macky Sall muy njuuj njaaj mo len ko dàq mo len dàq njuuj njaaj tappale Idrissa Seck ci loolu nag loolu nag man laa bëggul Sonko di ci tàbbi buñ ko ci laaxaale yoonam nekku ci askan wi la seqal askan wi ñoo ko indi fi mu nekk nii askan wi ñoo koy aar askan wi lay waxal saa su ne bu mu dugg ci seen njuuj njaaj yi loolu laa koy conseillé man man ànduma ak Ousmane Sonko di ko bàyyi lu mu def mu neex ma wala mu naqari ma mën a patt jàpp sama njàmbur su ma ko naree ànd ak Ousmane Sonko ma demee ba gis Ousmane Sonko di def loo xam ne jàpp ne lii gënul ci moom gënul ci réputation am ci projet bi ma xam ko ba noppi am kersa wala su ma ko waxee ci kaw ñu ne lii wala ba noppi kooku moom bàyyi Ousmane Sonko laay def man du ma ànd ak naafeq du ma ànd ak nit di nekk naafeq du ma ànd ak nit ne patt gis ko muy dugg ci pax ma naan patt ku dee ci réew mi seen façon yii moo ko rey léegi lëbi boobu ñoom ñooy financé sa Seck ci campagne bi ndax seen intérêt yëpp sa Seck moo ko gàddu boo demee Côte d'Ivoire Ahmed Bakayoko moo ko yoroon dee na Idrissa Seck ak lay Wade ñoo ko yoroon ñu dugal ci Karim Wade lobby boobu c'est le lobby des Libanais les Libanais de l'Afrique de l'Ouest démb bu xaw ma barki démb wax naa lan indi Afrique de l'Ouest libanais wax naa ko entre 1914 15 première guerre mondiale bi guerre bi amoon ci les alliés ak les les les les les les les les forces autour donc de l'empire austro-hongrois alliés avec ak avec donc l'empire ottoman ñoom ñëpp ñu nekk di contre donc les alliés occidentaux la France et l'Angleterre en alliés première guerre mondiale dafa jur ay blocus sur la Méditerranée orientale blocus yooyu bateau yi mënuñoo dem mu indi xiif ba ennemi yi di l'empire ottoman ak les allemands ak ñi nga xam ne ñooy l'empire austro-hongrois ñi nekk sur la mer Méditerranée ñi nekk sur la mer Baltique ñi nekk sur la mer Adriatique ñi nekk sur la mer du Nord blocus yooyu yépp nga xam ne dafay am problème circulation blé yi circulation nourriture yi bateau yi ñu mu am blocus mu indi xiif. ci dëkk yi nga xam ne ñoo nekkoon ci zone de guerre yi muy ay siri ay Jordanie ay Liban Israël gi tey foofu yëpp ba soldats yi doon xeex bateau yi demuñu dikkuñu ñu dugg ci biir dëkk yi nag mbay ma fa doon mbay lépp lu ñu foog guddi pulóox yaag blé yaag yëpp ñu réquisitionné ko nangu ko ci askan wi jox ko soldat yi xeex ñu lekk ko mu indi xiif xiif bu metti boobee moo yëkkati libaane yi ñu génn seen dëkk ñu baree baree bari te booba jamono dem Brésil moo xew comme ni demoon Italie xewoon ak Espagne Sénégal ñu dugg ci bateau tubaab yi ndax booba avion amagul di dem tukki pour dem Brésil booy dem Brésil da ñëw ba Sénégal def escale pour mën a dem Brésil fa la daan taxaw tubaab a ñëw français yi duy ay libaane ba ñu fees indi leen ne leen dañ leen yóbbu Brésil immigration Martiniquais les Martiniquais à côté légui dañuy escale Sénégal escale boobu nag bu ñu masaan a ñëw nag wàcce fa libaane yi ne leen da ngeen di xaarandi tout ndax bateau bi dafa am panne dafa am pièce bu dajéku yoyu ñoko daan tay tek xelu naar pour que naari buñu ñëwé Sénégal ñu dalal leen duggal leen ci seen commerce yi ndax bobu tubaab bi day indi ay produits manufacturés di jël gerte gi nga xam ne sëriñ talibé ñoko fay lapato yi ñokay bay tubaab bi diko ko def ci bato yi di ko ci seen usine de euh, turéfaction yi nek Europe pas turéfaction mais seen usine de de de de nu ko tuddee sax Euh, seen huiliers yi usines defar gerte yi di génnee diwlin dañ amoon France ñu koy soog a am mais matière première bi Afrique lay jóge de l'Ouest gerte gi ñu daan bay di ko dugal ci bateau di ko indi France léegi su bateau bi ñëwee wàcce gerte gi day jaar Liban jaar foofu jël ñenn ñi yóbbu leen Sénégal bu leen fa wàccee yóbbaale ay pakoti wàcce leen fa jël gerte gi indi France noonu la naaru libaane yi ñëwee Sénégal doon xaarandi bato bi leen yóbbu Brésil ba lambee Sénégal tag fa di liggéey tubaab yi nag tubaab bi jël jël jël leen doxale leen seen diggante ak Sénégal yi ndax tubaab bi bëggul la liggéey ak làppato tubaab bi nee bu sëñ bi wootee mu dem bu tool yi sëñ bi ñëwee mu dem du ñëw waxtu te boobu mootee mu dibb comptoir bi jox ko sëriñ bi moom sëriñ bi daal la gëm ak tëddit nelaw naa ni attaaya ak cant ak màggal ak cant tubaab bi ne du ma nag sama digganteeg làppato yi lii yi ba tax commerce Sénégal bi tey moom ngi ko libaana yi moom téye gi ñu ko ma nga jóge ci seen maam ne depuis 1914 te tubaab bi ñoo rocciku bàyyi leen ak ay Chavanel ay Monelprom ay caoutchouc plastique ay Buantaseer yooyu yëpp c'était des comptoirs français léegi Idrissa Seck nak c'est le candidat des lobbies libanais Ablaye Wade mooy ko nekkoon Idrissa Seck fofu ci Ablaye Wade la jaar Idrissa Seck Ablaye Wade Karim Wade biñu andé ci lañu ñu int Ablaye Wade mo len introduit dans la mafia libanaise moo tax Karim Wade bañ koy bako Macky Sall top ci créé yi ngeen gis ay bibo bourgie ngeen gis ay biens yépp Karim Wade yépp ay naara nekk ci biir ñu japp bibo bourgie indi tout ça ñu an ay prête non la parce que Macky Sall xam na li xew. Karim wadu du liggéey ak benn sénégalais ay tubaab du liggéey ak ay tubaab ay naar lay liggéeyal libana yi wala les saoudien wala les dubaïot wala les doha ñooñu Karim wadu ñooñu lay liggéeyal parce que mentalité bi nekk ci tubaab yi moo nekk ci Karim wadu Karim wadu wóoluwul sénégalais yi il n'a jamais eu confiance au sénégalais wóoluwu leen te d'une part il n'a pas tort sénégalais neexut a wóolu Karim du liggéey sénégalais gëmu parce que buy metti ñu lay trahir moo tax naar yi lay liggéeyal libana yi ñoom ñoom lay defal business léegi Idrissa Seck ak Macky ak Karim dañu nekk di xëccoo ñoom ñett ñooñu comme ñoo bokk ay lobby libanais yi léegi libanais yi nañu Ablaye Wade bàyyi nañu Karim léegi Idrissa Seck mooy seen pion pare nañ pour financer ko parce que c'est des milliardaires au Sénégal en Côte d'Ivoire partout ils tiennent l'économie de ces pays là Idrissa Seck bëgg a samp donc Sénégalais yi faale wuñu Idi Idi a am 1 pour cent mais libanais pare nañ pour taxaw pour jàppale que libanais yi bëgguñu Ousmane Sonko libanais yi nekk Sénégal dañuy génne ay milliards xeex pour Ousmane Sonko du falu parce que business yi ñuy business du ñu fay ay impôt cocaïne bi ñuy jaay drogue bi ñuy importation yi ñuy yem xam nga les produits 110 yi nga xam ne dañ koy jënd à l' export di ko génne di ko dugal ci seen usine di ko transformé ay milliards lañ ciy liggéey te ñu ngi liggéey ak Amadou Ba ni ñuy financé Idrissa Seck noonu la ñuy financé Amadou Ba les libanais dañoo séddoo dañoo xaaj ñaar ñoom noonu la ñuy def dañuy jël ñaari dañuy jël wenn taat war ko ci yaari ñooy financé Amadou Ba ñooy financé Idrissa Seck Ousmane Sonko la ñuy bañ a gis ñoom Thierno Bocoum moo leen gënal Ousmane Sonko lu leer laa leen wax libaane yi nekk Dakar fi mais nag c'est normal seen ay intérêt la ñuy défendre man je suis pas contre man je ne suis pas contre les libanais ñuy défendre seen intérêt ñun sénégalais e ñoo défendre suñu intérêt loolu mooy dëgg mënuñu fi nekk di bëtt suñu bët di jooy ku ñëw ñu ne dégage libanais yi dégage France dégage non personne ne dégage chacun défend chacun bout de gras voilà yéen vous défendez rien ay yu yi ngeen nekk xam ngeen ko li ngeen bëgg xam ngeen ko li ngeen yittewoo yóbbuwu leen fenn libanais yi demuñu Touba demuñu fal ku leen neex di foll leen neex bu ñu la falul tamit boo faloo da nga fexe ba ànd ak ñoom Ousmane ñuy bañ a gis Ousmane Sonko mooy seen bête noire parce que li muy woote ci lu leer li muy woote ci njub li muy woote ci réew mi suqaliku nit ñi doomi réew mi tabax réew mi loola moom bis bu amee libanais yëpp ay bàyyi Sénégal moo tax ñoom daañu def lu ne pour Ousmane Sonko du falu waxuma ko nag pour que ngeen toog fii naan non je suis anti libanais j'aime pas les libanais les libanais doivent dégager non libanais bi Sénégal la juddoo ay maam fi ñëw mu juddoo fi gën la dégg wala gën la xam Sénégal fouf limu xam ci Sénégal xamoo lak làkk li ngay lak mo la gën dégg mo la gën xam Sénégal mo la ëpp njariñ ci réew mi limi liggéey ci réew mi ci kom kom mënoo ko liggéey wala man man sa sëriñ ci réew mi libanais bi noo ko fa jëlé dafa tabax ay usine di créer ay emploi Omaïs maïs libanais la ay maamam ñoo fi ñëw xiif moo leen jële woon seen dëkk pour dem Brésil tak Sénégal au moins juddu ñoo dàq làkk wolof fuuf wolof yii may làkk ñoo yow ñoo man su ma làkkee wolof libaane bi dina ko dégg te yow doo ko dégg te yow wolof nga ba noppi libaane bi moom demul woon usines yi nga xam ne pâtissier ki yooyu ñoom ñoo ko moom pâtissier oma yi soo ko moom multimilliardaire la dañoo am lobby am ay conseillers ci biir palais bi dañuy liggéey yéen ngeen di yàq liggéeyu leen naan libaane bi libaane bi amuleen lu ngeen wax man gis nga liggéey du ma ko caaxaane japonais bi jógee japon ñëw Sénégal di liggéey Sénégal sénégalais bi nelaw japonais bi moom a gën a japonais bi ñëw Sénégal di liggéey moom a gën a sénégalais boo xam ne lu mu am yóbbu ko jox sëriñam tappale ak caaxaan man dama fonk liggéey liggéey mooy soxalee am réew bu ma gisee sénégalais buy liggéey nag nga xam ne joxul sëriñ toppul sëriñ jox yàqul néew ci ay xew ki gàmm ki màggale ki tant ki cant ki ay anniversaire ki yu kenn xamul ñàkk fayda yoo xam ne day taral nit ñi bu ma gisee sénégalais bu nekkul ci loolu di liggéey damay ànd ak sénégalais bi sénégalais bi ma gënal ci kaw mu tegu ci yoon woo xam ne da koy soxali soxali réew mi créer ay usine di créer ay emploi libanais yi nekk sénégal di créer ay emploi ku mel ne Omaïs Patisen moo ma gënal seen daayira yi seen daayira yeeg seen màggale cant yeeg yi parce que du jur benn xëy kenn mënu cee am salaire amulu ma njariñ man te man réew mi moo ma ñor il faut que mu leer de Je ne suis pas dans un chauvinisme aveugle. Non, non, parce que c'est un Libanais, il faut le chasser. C'est un Japonais, il faut le chasser. C'est un Français, il faut le chasser. Mais ñoom ñooy liggéey te réew a liggéey moo koy soqali bés bu ñu jógee pour taxaw pour liggéey su boobaa man ma ànd ak yéen ñun ñu ànd parce que nag bala ngay laax jaay da ngay laax lekk boo amee doomu réew bu nangoo liggéey futteeku pour liggéey te du yàq alal gi du ko jox ay sëriñ ak ay làppate ko yu kenn xamul ñu je les défends waaye loolu liggéey màggalee ko gàmmee ko jox ko ji ay kasaw rey ay naga kii di concours rey nañu mille nag soxna ay da indi na dix mille nag ñee yenu bool yi ñu ngi yóbbu cant yi wallaay sëñ bi addi yi Italie deux cent millions kenn addi yi Amérique gi trois cent millions boo ko dajalee man boo ko dajalee mën naa tabax usine waaye duñ ci def lenn lu amal njariñ réew mi duñ ci tabax dara lu amal njariñ réew mi benn usine boo demee Bawol kenn liggéeyul xalaatuñu ci def luy soqali doomu aadama yi booba libaane bi moom mi ngi jël ay milliards di ci réew mi ay doomi Sénégal di ci xëy weer wu nekk ñu pointé fayeeku dem fay ci seen i loyaas yor ci seen i njaboot di ci dund di ci xotti di lekk di màggali Tuubaa ci alal jooju ndax dañuy liggéey libaane bi moo ko embauché yow bi a embauché sa sëriñ saa yoo ko liggéey leen gratuitement nga ko liggéey du la fay mais omayis naar bi libaane bi boo ko liggéeyee mu fay la mais sa bi yow du fay salaire ngeen bëgg man kii fay salaire moo ma gën a ku dul fay salaire naaru libaane bi moo ma gënal seen sëriñ sépp ndax moom dana taxawal société dana ko dugal doomu sénégalais dina ko fay donte donte payal ko du baax waaye moo ma gënal taatu neen ngemb moo tane taatu neen salaire libaane bi ngemb la moo gën taatu neen taatu neen mooy kii liggéey sëriñ bi te du cee du dara te tàll sa loxo tëf tëf tëf tëf tëf looy dundee looy lekk je me contredis je me contredis pas je me contredis il faut que tu t'expliques Les may wax su amee sont am na su amul ngeen ma amul li may wax li may wax am na wala amul waaye bu nit wax ko tu te contredis ces petits mots là non il faut être clair et précis man lu leer laay wax li may wax yéen a koy mais li ngeen di bind xawma doon tu te contredis en quoi il faut le dire tu as des arguments pose-les Idrissa Seck est le candidat des Libanais dama leen koy wax mu leer. loolu na ko waa Pastef xam na ko Ousmane Sonko xam ñoom ñiy négocier tëjoo ko wax nañu xam bu baax ñi ñuy toogal ñan lañ yan lobby ñoo nekk seen ginnaaw yan intérêt la ñuy défendre duñu Idrissa Seck toowul Sénégal gëmul Sénégal dictateur Macky Sall ko gën ci Sénégal Idrissa Seck Macky Sall ko gën pouvoir bi Macky Sall am su ko Idrissa Seck amon rey Ousmane Sonko bu yag Macky Sall mo tane Idrissa Seck ci réew mi Idrissa Seck mom xam mom mbaa la xamul pouvoir mom doole rek. do feeñ na ci waxam mbërki donc bu ñu bëggee dal ci ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew ñëw ci réew mi di fi liggéey ay milliards te ñun nanguwuñu liggéey wala boog lu ñu liggéey yàq ko ci ay xew ci ay daje ci ay événement religieux wala événement du ma ko sax événement religieux parce que événement religieux mooy koor korite ah euh, ak ak ak ak ak li nga xam ne moom mooy suñu diine moo ñu ko sant leneen li ki des yëpp suñu diine santuñu ko li nga xam ne yonent salaa sallam moo ñu ko jàngal yàlla digle ko ñu di ko def loolu mooy événement religieux leneen loo xam ne yàlla santuñu ko du événement religieux événement familial la événement confrérique la ay xew-xewu famille la mooy ngénte yeeg dégg nga maam na euh, tuur yeeg yooyu yëpp ak ceet yeeg yooyu yëpp boo ko boole yooyu affaire famille la des mooy euh, yi ngeen tuddee euh, gàmmoo ki màggala ki canta ki appelé ki yooyu nga xam ne kenn xamu ko kenn xamu ko yéen ko inventé di def ay milliers de milliards chaque année te mënuñu cooy tabax loo xam ne day indi am xëy nit ñi di xëy di liggéey am réew liggéey moo ko yore liggéey am payoor boo amee payoor mën caa dund lii tànk defu leen ko ci seen bopp yi réew mi du dem képp ku koy def ci réew mi yaa ma gënal ku ko dul def moo xam nga nekk tubaab moo xam nga nekk naar moo xam nga nekk pël moo xam nga nekk jola moo xam nga nekk wala sama yoon newu ci c'est mon man man personnellement faut ñu xam la ñu bëgg waaye toog rek di critiquer toog rek di bëgg a dàq ñëpp lu ñu wax nga ne tubaab bi lii naar bi lee diwlee mais après looy def yow yow defoo dara yow diiwaankat nga takk sa ndigg yor sa micro di yuuxu jaa ngi xasida loolu tabaxul am réew indiwul ndox mu baax amoo ndox amoo ceeb amoo jus lépp Dubaay lay jóge wala Chine takk ndigg yi jaa ngi xasida bu doon soqalee am réew réew mi dem na bu yàgg demuñu fenn. amu fi réew mi Sénégal gépp amu fi benn usine boo dugg ci réew mi ñoo la ku sant Mbàkke moo ko moom ku sant Si moo ko moom ku sant Caw amu ci benn sëriñ bu am usine bu embauché fukki nit yi muy fay par weer amu fi wax leen ma ko kan la seen ñi seen yàlla ñi ngeen topp wax leen ma ci kenn ku fi tabax ab usine wala mu créé fi ab société boo xam ne weer wu dee dana jafay lu mat téeméeri nit wala juróom wala ñaar fukki nit yu muy fay weer di leen déclaré di leen fay ngeen wax ma ko wax leen ma ko ana mu kan la wax leen man dama diw Mbàkke si ñas caw euh, ba ak ñoom ñi ngeen fi topp ñëpp wax leen ma ci kenn ci ñoom koo xam ne tabax na ci réew mi loo xam ne boo ko fëggee danga fa fekk ay sénégalais yuy fayeeku di liggéey weer wu nekk wax leen ma kan la amul ñu sax fay impôt non seulement business yi ñuy def sax informellement lañ koy di gagné ay marché dugal ay produits di ko jaay duñu fay ay taxes duñu fay dara encaissé lépp def seeni i kenn du ko wax naar bi nag moom lu mu dee dee mi ngi sàcc naar baa ngi sàcc de du fay impôt wala boog bu fay cent fay cinquante moo tax ne ki dul fay dara sëriñ bi moom fayul dara moom naar bi moom mi ngi fay ndax mi ngi embauché ay nit déclaré leen di leen fay nit ñooñu na nga ciy dund moo xam mu néew moo xam mu bari mais am réew loolu koy suqali kon li may wax mën na naqari seen xol yi mais kenn du ko dindi ku ci xam sëriñ bu yor ab usine bu ñëpp xam nit ñi di fa xëy mu leen di fay weer wu dee nga wax ma ko ku fi am sëriñ boo xam ne day embauché ay nit ca tool ya muy bay nit ñi di liggéey bu ñu bayee ba noppi ñu fay leen ngeen wax ma ko gisuma ko fi tool yi yor di ko exploité sax bu ngeen fa bayee ba noppi gratuitement dañ leen seen loxo ñu tëfli leen ngeen tàllal ñu tëfli ngeen na amin dem uti lu ngeen dunde amu leen dara par contre boo demee ci toolu indien bi ñu fay la boo demee ci toolu chinois bi ñu fay la boo demee ci toolu libaane bi boo fa liggéey mu fay la feneen foo dem ci ñoom ñii ngeen xas ne nekk ci réew mi tubaab bi boo demee ci toolam mu fay la boo demee ci société tubaab bi mu fay la boo demee ci usine tubaab bi mu fay la waaye sëriñ bi moom lu mu laal payoor amu ci te yéen sëriñ bi bi leen dul fay ngeen gën a bëgg ki leen di fay est-ce que ay nit ngeen ce que ay nit ngeen. J'ai vu un fils d'un Libanais qui est dans l'université Duke ici aux États-Unis. Son père a une usine de béton au Sénégal. Il m'a dit que sa famille a supporté. sa famille ne supporte pas son cours. Eh bien voilà, Ousmane Sonko pour l'Afrique. Les que Nous Ben libanais de médecine à l'université du Duke Duke University c'est l'une des universités en médecine les meilleures au monde même aux États-Unis benn libanais bu jóge Sénégal baayam yor usine béton ba am ci ay milliards jël doom ji yóbbu ko Duke University aux États-Unis en Caroline du Nord mu di fa jàng ba tase ak ab sénégalais bu ne ko man de sénégalais laa jóge sama papa ma nga fa usine béton la fa yore am na xaalis waaye sama papa sama waay sama parent yi ñoom ànduñu ak Ousmane Sonko gis nga am na ko ko commenté léegi mooy li may wax rek parce que business yi ñuy business mbuxum yi ñuy donte ñi ngi fay ay salaire waaye duñu li ñu war a fay état duñu ko fay état loolu moo tax Ousmane Sonko ne budget six mille milliards yi ngeen wax ni c'est rien man Ousmane Sonko ma jëlee réew Sénégal ñaari at ma yóbbu budget bi parce que xam naa fi xaalis bi jógee xam naa fi càcc gi nekk xam naa randal gi fi mu nekk Sénégal li fi nekk ci alal du jeex mais dafa am ñu nekk ci kaw séddoo ko lu bii libaane yi sëriñ yenn fonctionnaires yi politiciens yi ñoo koy am na alal ndóol gi man na fay jógee man Ousmane Sonko xam naa fi xaalis bi jaar ci xaalis lay liggéey

Ousmane Sonko moo gën a xam fii metti dafa xam fii metti ci réew mi moo gën a xam li téye réew mi moo ni mu ko xamee dafa ëpp sax ñoom ñi nga xam ne ñooy yàq réew mi xam nañ ne Ousmane Sonko nii xam na fi réew mi toll ak yàq yàqu wopp gi jàpp réew mi Ousmane Sonko xam nañ ko moo tax ñoom ñëpp a jóg dañ koy sot duñu ko bàyyi mu falo ñun ñi ñoo ci jàpp di lambar lam ñun ñi ñoo ci jàpp taxaw temm Sénégalais ñoo taxaw. taxaw googu ñu taxaw nag am comprendre Ousmane Sonko xam-xam gi mu xam góom bii metti réew mi fi mu nekk ak garab gi koy faj Ousmane Sonko ñu xam ne xam na ko ñu ànd ak moom jàppale gi ñu ko jàppale moo tax duñu ko may dara duñu ko bàyyi mu fàkk salu duñu ko bàyyi muy toog ak ay lobby yoo xam ne ñooy yónni Idrissa Seck ki ay bandi yoo xam ne moo tax lu Ousmane Sonko dugg dafa war a leer parce que enjeu yi moo rëy li cay xam ngeen yéen réew mi fu mu est-ce xam ngeen yéen li ñuy wax lan la est-ce que xam ngeen loolu non du ngeen ko mën a xam du ko xam kon lépp lu ñuy wax waxuñu ko pour mu neex diw wala mu naqari diw weesu nañu fu ñuy waxee pour mu neex ak mu naqari dañuy wax pour réew mi tabaxu foofu laa toll man man óoma lu may wax pour mu neex mu naqari kenn toppatoo ma dama transcender seen ay desiderata ay li nga wax neex na ay neexul ay kontaan man man loolu bu su nekk wax leen ko loolu war ngeen ko xam ci man man li ñuy topp yanu ko ànd ceeg Ousmane Sonko naka lay bañ a laatoo naka lay nekk loo xam ne day mat àgg fa mu jëm li ñu bëgg tabax réew mi parce que li gën a neex a defar Sénégal mooy Sénégal li fi nekk ci alal du jeex mu des nag nga am ay nit yooyu àndal looloo jaxe ci réew mi waaye boo amee équipe bu baax ay nit ñoo xam ne utuñu alal ay nit ñoo xam ne ab sac la ñuy ut sac mooy lan Sénégal de soqaliku na ana ñu ko tabax ñu ne diw ak diw ak diw ak diw ñii ñoo ñi sacrifié wu bugguñu dara lu réew mi taxaw yar sénégalais yi ut ay yat di duuma sénégalais yi ci discipline di leen duuma ci liggéey di leen duuma ci fay impôt di leen duuma ci rigueur nga xam ne bu ëllëgee bu réew mi soqalikoo ñu ne ñu ko tabax ñu ne ah ñoom suwen laay ñoom Dan Xiaoping ñoom Mao Zedong ñoom gis nga tey Chine a ngi dem yoonam première puissance commerciale du monde ñi ngi wax sax économie du monde l'usine du monde Chine pourtant ba ko Mao di tëgg ah metti woon na de la illah li mu rey ci ay nit li mu tëj ci ay nit travaux forcés xam nga la marche en avant bind livre rouge ñoom ñëpp ñu durus ko taxaw ñu jël Sun def ko benn maître de pensée til ay théorème teg discipline de l'armée acc ñëpp jublu ci benn jubluwaay bu ñu ko defee dem chinois yi moom nañ def dem seen mais réew moo xam ne euh, président bi su ñëwee nga ne man faalewuma président bi waaw sëriñ bi laa gën a faale président bi man sama sëriñ ma gënal waaw man bërëb sàngam moo ma a euh, réew mi man Sénégal na tàkk waaye bu bërëb sàngam tàkk réew moomu du dox il faut que ñu am président boo xam ne ñëpp dañuy nekk ay citoyens par force mais dans l' intérêt général président bi tamit day fekk moom it la muy woote mu njëkku ci maanaam fi nga bëgg a teg askan wi fi nga leen bëgg a jëmee yaa cay jiitu woo nit ci loo xam ne yow néewu ci da ngay wane ne yow da ngaa jeex ci réew mi looy woote yaa cay jiitu parce que ñi ngay woo il faut que ñu gis la ca loolee pour mën laa wóolu mën la caa topp nit ki mënoo koo forcer ci loo nekkul mooy li Macky Sall nekkee day njuuj njaaj ba noppi bëgguñoo woote ci respect ci républicain loolu mënut a nekk ndax Macky ci boppam néewu ci moo tax il faut que am koo xam ne mooy premier sacrifié wu nit ñi réew mi ñi koy defal ay ñuy sacrifier seen bopp lañu doon waaye ku bëgg 4-4 bëgg ay jabar bëgg ay noos ay hôtel premier classe ay avion premier classe ay gasner ki Touba ki premier tante yaag Tiwaawan ki tante yaag diwa baax ak say mbokk yi kenn ku nekk réew mi du dem du dem bi dem ñi tabax ci Sénégal ñi koy tabax Sénégal ñi koy tabax ay sima la ñu doon ta xam nga sima benn yoon lay toy boo xasee ba toy ba ñu tabax xam nga da ngay wow moo bokkutoo maanaam ñun ñi ko bëgg a tabax ñun moom nañu génne suñum xel ci jariñoo Sénégal waaw ñun ñi koy tabax ñen ñun nañ yéen xam ngeen seen ñi ëpp ñi tabax kër yi duñ ci dëkk fan ngeen mës a gisee maçon bu tabax kër ba dëkk ci maçon bi tabax kër amul kër kër yi mi tabax du ci dëkk ñun ñi tabax Sénégal ñun ñi ko bëgg a tabax bu ñu xalaat dëkk ci kër yi ñun moom bokkatuñu ñun kay dañuy tabax pour suñu doom yi ak ñi ñëw ëllëg waaye ñun ñun suñu maam yi ñoo ñu waroon tabaxal ñun suñu suñu suñu suñu tabax weesu na ñun kay nañu fexe ba li ñu rëcc ci ñun suñu maam yi tabaxal ñu ko nañu fexe ba bu mu rëcc suñu sët yi xeex bi ñuy xeex pour ñi ñëw suba la il faut ngeen xam loolu léegi nag kuy xeexal kuy ñëw suba il faut que nga généreux il faut que doo soxor doo iñaan doo ne man man doo xalaat sa bopp doo égoïste da ngay fàtte sa bopp xam na yow say maama la waroon a xeexal xeexaluñ la kon yow bul def même erreur bi xeexal pour say sët ëllëg ñu mën a am dara ñun suñuy sët la ñuy xeexal donc ñun bokkatuñu bu ñu bëgg 4x4 bu ñu bëgg oto bu ñu bëgg taax bu ñu bëgg costume cravate bu ñu bëgg nappaaje ay jéeg bu ñu bëgg yooyu yëpp nañ ko sacrifier pour les générations futures tant que pare wuñu amuñu yi état d'esprit mënuñoo dem ñi tabax Chine ba ñu koy tabax amuñu dara Chine gi ngeen dégg tey ña koy sos ba ñu koy sos daawuñu lekk ñu naan ay millions ñu tegi dee travaux forcés liggéey acc rythme bi taxaw sonn ci lool tey am nañu ña nga ca barsàq waaye bàyyi nañu fi Chine goo xam ne tey jii fu ngi nee Chine ñoom dañ leen tudd ñoom duñu dee mukk seeni way du naxasaay mukk loolu mooy aw way loolu mooy alal mais ban sénégalais moo am bi état d'esprit koo ci waxal mën a njëriñ looy fekki booy xeex ñu la bàyyi li ngay wax li ngay wax soo ko waxee doo mas a falu ci réew mi boo la sëriñ si réew mi ko fekki attention risque yi ngay jël kërëb kërëb mais lan mooy falu mooy lan wax dëgg boo waxee dëgg daal réew mi ñàkk amoo fi benn droit booy wax dëgg ndokk naa fi ñàkk lépp mais li ma wax dinaa ko wax naa ñàkk lépp après lu may wàññi waaye ba keroog yàlla di wal bulus bi li may wax mi ngi ci réseau yi génération ay génération daan ñëw di dégg samay wax jii lii may wax da fi def daa iman te man loolu ma loolu ma ñor xawma heure layatul xadri xawma kuy layatul xadri nga dem layatul xadri bu fekkee yéen xam ngeen layatul xadri ban guddi la ak ban heure la ngeen dem lijjanti ko yii yëpp bokk na ci ay facteurs suuf développement yuñ ñu tardeel man tey la layatul heure layatul xadri kan moo la waxtaanee laylatul xadri ku la ko wax ku la waxtaanee laylatul xadri ku la ko wax ak boo demee ak laylatul xadri bi loo fay def dangaa mën a am lu gën lii may wax nii ci guddi laylatul xadri mënoo ko am mënoo ko am ci may wax nii nga di ko dégg boo doon fanaan di këpp këpp ba subaat lii may wax a gën lool mënoo am ci yàlla lu gën lii may wax ci jamono bi ndax léegi ku naaw dangaa ndóol ab fakkiir nga yow da ngaa war a lekk asaka amoo dara ma di lay wax lu la génne ci sa nga am ma guddi laylatul xadri nga dem defi ko man je fais guddi laylatul xadri je le fais à ma ma manière nii laa ko defee li ma tax réew mi dem ku bëgg a dem nga dem laylatul xadri lu sama yoon may wax sama wax nga am ma tey booy nga génn ci laay bi dem dem këpp këppali ji comme këpp këppal ngeen xam lu sama yoon man faut respecter les gens sama yoon. moo tax su may bu bëgg di xool commentaire yi parce que dañ lay ay dañ li ko bay genax fu lañu la ñuy génn lu sama yoon ci seen layatu khadri kenn ku nekk tu vous êtes libre on dañuy xex pour démocratie pour liberté chacun est libre de faire ce qu'il veut da ngay julli gi da ngay këpp da dama këpp këppali loo ciy tàggoo di ko wax ak diko yëgle pourquoi faites sérieux aussi on ne force personne man gomo lu ñuy forcer kenn man dama gëm liberté voilà loy boy def ngay def li ngay def kon il faut que ñu prudent xeex nañu xeex bi ba aksi fi aksi nañu ci loo xam ne ña nga ca cëppaandaw ga li ñu doon xeex yëpp on est pratiquement au bout du tunnel presque aksi nañu am nañu ndam ba pare lépp lu ñu daan taxaw di ko faggu di moytu tey lañu ñu gën a soxla taxaw temm tey lañu ñu gën a soxla di moytu tey lañu ñu gën a taxaw faggu moytu gën a prudent gën a nasu gën a ànd tey ji lañu gën a soxla parce que fi mu demee bay sotti foofu la mën a yàqu voilà ma ñoo xam ne dañu bëgg di ruubee nekk ci live yi kii dama ñooñu finalement dama leen dama leen mujjee bloqué parce que dañ lay perturber da ngay nekk ci sa lekk di wax li tax ngay woote ñoom ñu nekk ci ginnaaw laay fu ñu bëgg la commander bëgg la def loolu yi bëgg di la ruubee di dugg fi di génn fee après boo leen bloqué ñu ne dictateur fekk ñoom sa bopp ñooy ñëw au lieu que ñu déglu toog wala bu ñu mënta déglu ñu dem tranquillement du ñu créer kenn mais dañuy ils aiment perturber les gens et ça c'est pas bien il faut sérieux respecter les gens man maa woote man maay live yow live fu defoo dara mais il faut me respecter quand même un peu de respect il faut, il faut, il faut respecter les gens. Comme euh, il faut faire très attention avec Idrissa sec appel à appel de pied yi muy def Ousmane Sonko fi Bassirou Diomaye Faye fee yooyu il joue il joue avec la force parce que force bi xamna ne moy Ousmane Sonko force bi moy ñi ànd ak Ousmane Sonko xamna ko doful dem na ba nar a daanu dem na ba lim doon jouer ak Macky Sall war ko ñak mu xol naka lay def ba du ko ñak mu ne benn wéeruwaay way kep la a am moy dukk ci biir Pastef Ousmane Sonko Bassirou Diomaye patati patata infiltré na leen di jéem a nasak ak nocceeg ñoom loo xam ne lim ciy njëkk a posé comme condition mooy bu mu siiw fexe na ba lim seq ak Ousmane Sonko bu mu siiw moom fexe na ba loolu du siiw wax na ko fexe na ba la muy wax ak Ousmane Sonko warut a génn <laughs> ah, noppi teg ci ne un homme d'état am secret am na loo xam ne nee na waaw ma ngay lay de loolu Sonko lay waxal de waaw. ñu am waxal waxal waxal mënu maa wax am na loo xam ne mënu ma koo wax ndax démb ba ma dajalee sama mbooloo ñu dem dajee ca sama sama ranch ba nekk Banja ranch boobu na nga ko amee waxoo ko Idrissa Seck alalu Sénégal nga sàcc jël suufi Sénégal sàcc ko Idrissa Seck ranch boobu ngay wax ay ranch ban ranch dem Banja jël suufi baadoole yeeg yëpp téye ko ay hectare yi hectare dex ga jaaroon foofu nga dagg dex gi xañ leen ndox xañ leen bay lañ ko am yëpp nga foqati ko ci doole Idrissa Seck te yaa taxaw duñ jox ay leçon de morale

pour justifier que Ousmane Sonko wër ta wax dafa wara a noppi foofu lay dugal Ousmane Sonko daf koy laxas ko wara wax nel pat Ousmane Sonko bu fekkonte ne pattaaral lay def heure bi ma nga ca bàmmeel ya, sul nañ ko bu yag ni nan aw beuy la boy lal ci sik ci sikki ki bi ci sikket bi gen bi boy ci lal mu yuux aw beuy la beuy kenn du ko rey te mu yuux beuy dafa réyu làmmiñ Ousmane Sonko mo raw beuy bu muccee ba léegi làmmiñam moo tax muccul moo tax mu mucc bu du woon noonu Macky Sall rey ko bu yàgg fu ñu ko laalee jóg na yuuxu Ousmane Sonko yuuxu lañ ko xamee Idriss Seck ne ko noppil seen yéen seen fi koo xam ne wax lañ ko xam ñu ne ko noppil Idriss Seck ko noppil maa ngi yow ñu ngi wax waaye bu ko kenn xam Ah, donc, ce n'est pas seulement mes lives qui perturbent. Donc, il a la manie, la folie primaire de perturber les lives des gens. Je le remarque depuis quelques temps, depuis toujours d'ailleurs. Il me dit, oui, Akelton, quand est-ce que tu fais Akelton fait là. Tout le temps, il me, il me met la pression. Dans ma moment donné, dans ma suspicion, ça, le faux compte là. J'appréhende le, le, faux compte. Mm-hmm. mais, mais, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ce malade, il n'y a du compte, t'inquiète pas. Donc, je ne suis pas le seul à, avoir remarqué ça. Mhm. T'inquiète pas, les radars sont sur le compte. Comme gouvernement bi war a daanu lii Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye Oumou Amadou Ba ngay buuxante moom it ma ngay manoeuvrer ak ay nitam ñoom Umar Youm ña ngay génn di dal ci kaw Idrissa Seck Idrissa Seck ma ngay dal ci kaw Karim Wade ak Ablaye Wade Mariam Sall ngay jéem a jouer ak Idrissa Seck pour Ousmane Sonko nu ñu ko maîtriser Bassirou Diomaye moom fekkee na ca waaw coow la coow li génnaatul Macky Sall xamul Mariam Kumpa ngi ko rey mu joxe ordre na nañ jàpp Bassirou Diomaye téye bund xataal dugg téléphone am interroger ko xool ba xam dana am lu wadd Bassirou Diomaye waxagul ba léegi balaa nga gannaaw suba ngeen dégg média yi génn Bassirou bañ ko interroger lii la wax ak lee wax ak lee la wax retour de dañ ko pamti pamte pamti pamte ba mu sonn waaw Bassirou nag temps yi xam naa ñoom xam nañu dafa da doon ciital bi mu takkee soxna yàggul xaw ma ñaareel a takk xaw ma ñetteel xam naa dañ koo bëgg a xañ soxna dañ defoon papitokara lañ ko def gars yi moom boo takkee ab boo takkee boo takkee as as jongama boo takkee bo boo boo takkee as coro duñ la bàyyi nga nga seetu Bassirou comme Bassirou comme na doon seetu bi mu takkee ñaareel xaw ma ñetteel xaw ma sax ñaata yàggul matul deux trois mois gaa yi ne ko jeex dugal ci kaso bi xaw de xaw am naa ku mu takk bu yàggul moom Basiru xaw ma ñaareel la gaa yi ñoom ay suumaree lañ li may wax rek dañoo bëgg jabar bëgg soxna yu bari ku wax lii wax lee réew mu ndóol réew mi nañuy lekkul waaye sama gaa yi ku ci am ku ci xoggale ku tuuti rek dama uti nga maam ut beneen jeeg bu baax teg ci wet ji daga lay jabar rek kenn xamul fu bi jëm ah waaw des fois ma ruube kay ko ci sànni rek pour ngeen xam ko Macky kat dafa mel ne ñoom Mariam kat dafa mel ne moom day singali gaa yi moom patriote yi ku ci takk jabar rek mu dugal ci kaso bi loolu dama jaaxal ah toll ci xare di xeex gaa yi gaa yi ñoom di rangale ay jabar ay xool li te faloo guñu bu ñu bu ñu faloo ay ñeent jabar la ñuy yor ba nawet bi tegi bant dépense yi dul jeex oto yu dul jeex ceeb yi dul jeex saleer bu du doy foo jëm fuñ jëm. ah yéen da ngeen ruube léegi da ngeen di xàqataay kare. ci jabar yi yéen ah nee na Basiru <laughs> day roy si Seydina moo tax mu ut ñaareel en eh, tout cas doy na donc daal loolu mooy li nga xam ne moom laa ne woon il faut que ma indi ko ngeen xamee ko noonu xam ne jàpp gi ñu ko jàpp moom Basiru dafa am link ak daje ba Ousmane daje ak Idrissa Seck ba Bassirou teewe ko sa Seck lànk na du wax lañ fa wax Macky Sall xamul Mariam xamul te ñoom ñoo ko yónni woon mu dig leen ne bu demee dana dikk wax leen la mu fa jëlee waaye boobu léegi nag la mu fa jëlee da ko téye nag léegi nag di ko xoqatalee Macky Sall ngir li mu bëgg te li mu bëgg mooy nekk candidat 2024 candidat wu Benno Bokk Yaakaar te Macky Sall ba léegi taxawagul ne candidat la. Amadou Ba ma ngay buuxante daal Daouda Diallo ngay buuxante Aly Ngouille Ndiaye plus ou moins ma ngay manoeuvrer kon daal yooyu yëpp yu compliqué la yoo xam ne Karim Wade moom gis ngeen ko dawaa la nekk waaye Turquie lay inscrire point E lay voté ji dëkk dowaa dem inscrire Turquie pour dem voté ji point E loolu mooy le le triangle des Bermudes koo koy Karim Poune Karim Karim Poune yooyu yëpp nekk yoo xam ne doo xam lu mu nuru euh, gis naa ñu génne ko tey naan Karim ay inscrit Karim 2018 dafa inscrit woon di Karim kay saa yu saa yu élection amee mu bindu waaye kenn du ko gis di Karim moom saa yu élec 2018 dafa e- dafa bindu woon waaye moom xanaa moom <laughs> Karim <laughs> Karim dem na dem na ba Turquie de Karim mën naa dem États-Unis mën naa dem Turquie mën naa tax dugg Gambie dugg Guinée dugg Mauritanie waaye mun mënut <laughs> dugg Sénégal ngay xool da ngay seet li opposition bi dajaloo ñëpp taxaw pour xeex lii nga xam ne dafa dal ci kaw Karim Wade Karim na mokk jàpp njàmbaram mook ab lay Wade yow mënoo dugg Sénégal yow Karim ki la ko teg mooy Macky Sall ñuy xeex Macky Sall nga ne mokk na bokkoo ci ndax lan nga ne Mimi Touré ngay xeex Karim yow lan la la Mimi Touré def Mimi def la dara ndax man bu fekkonte ne Mimi moo la def Mimi Mimi nekkatu fi bu fekkonte ne Mimi moo la def bu Mimi bu fa Mimi jógee kay nga mën a ñibbisi mimi ma génne réew mi waa léegi mimi nekkatul ci réew mi waa ñibbisil waaye yow mimi ma def mimi ma def te yow mimi jóge na ci nguur gi mimi léegi mi ngi xeex Macky Sall ba nga fi nga ne mimi ma def mimi ma def ba léegi mënoo koo dugg Sénégal Gambie sax mën nga faa dem waaye doo dugg Sénégal ah lii nag tuuma la bàyyi leen mi Touré ki def kay mooy ki la teree dugg Sénégal mooy Macky Sall loolu mooy dëgg bu fekkee da ngeen complot nag ngeen wax ko askan wi am ngeen droit def seen i ndax ci ngeen juddu ci ngeen màgg mais um complot ngeen nam ngeen assumé ko. waaye ngeen yàpp Mimi Touré te Macky Sall damm seen i loos jël seen i alal exile leen wat say yéen ba nga mun mel ne puune Macky toroxal la toroxal sa baay toroxal la yéen ñëpp au lieu ngeen dal ci kaw Macky Sall ngeen wëlbatiku di ak Macky Sall bëgg koo singili Mimi Touré Mimi Touré kenn da koo fal Mimi daa am benn pouvoir Mimi lu mu def Macky Sall la ko ko def loo mu di ko def ba mu demee ba d'accord la Macky Macky da koo dàq mu génn di xeex ak Macky ngeen topp naan Mimi ma def lii Mimi ma def lee lu leen Mimi def lan la leen ni mi def wax leen ma ko seen tappale yi du ngeen ko bàyyi mukk Abdoulaye Wade mo leen ko jàngal tapale rek guddi ak bëccëg tapale guddi ak bëccëg léegi nag da ngeen a tapale tappale ba ci biir tapale da ngeen doon laxas di laxas di laxas ba faf ngeen laxasu ci seen i laxas Macky Sall ki Idrissa Seck ki Abdoulaye Wade ki yeen ñëpp tapale te li waral mooy coppi giñ wara war coppi réew mi ci ñaari yi fami yi Senghor rek fami ablay wadou fu réew mi toll ñoko tardel ci njuuj njaaj gi tappale PS ak PDS seen njaboot ñoo fi nek ba léegi ah, lëmbe réew mi tank dejjeti wul wuñ leen ni ñi caterpillar di déjjatee guuy ñu sanni leen ci all ba samp ay garab yu bes yo xamne day am meññeef tank defu ñuko PS ak PDS yi nga xamne ñoo lëmbe réew mi ci ay complot bala ma dee nak ba wax ñaan il faut républicain l'état de droit force reste à la laata ay sacc lañ ñom ñëpp ak kat PS comme PDS politique bi ñu amee dafa xewi politique bu 1960 la ba 2000 xewi na xel dañoo tàkk léegi Mark Zuckerberg dafa ñëw indi Facebook indi Instagram indi WhatsApp xel yépp boy ñoom ñu nekk ke seen système classique yi ñu doon def teg ay complot teg ay deal def ay protocole nit ñi nekkatuñu foofu léegi nit ñi léegi politique cash la ñu nekk léegi teg teg gi tout de suite jooni jooni lu ngeen nas ñu xam ko génne ko mu siiw ñëpp xam ko yéen ngeen lànk du ngeen jóge ci nasaka nocci njuuj njaaj do Soti. PDS kay ak Macky Sall la ànd parce que lank nañ na duñu bokk ci mbootaayu kujje gi opposition bi yépp daje nañu wa PDS ñom duñ ci bokk tek ay condition yooyu condition ngay tek yow ya, da nga am dara mënoo dara bu ñu won yewi ya, ya, askan do am député yu bari ngay tek ay condition yeen condition ngay tek ñepp bay nañ la sa candidat nga Dubai bu jógee Dubaay ma nga Doha bu jógee Doha ma nga Ankara bu jógee Ankara ma nga mi ngi mi ngi wëndilu taxawaale waaye ñi mënut a teg tànkam Sénégal ngay chantage yow sa candidat Karim mënut a teg tànkam Sénégal ngeen di chantage nit ñi yéen wér ngeen xanaa nit bala mu ne naam ne fa yéen ki ki ngeen di samp moom xam naa Abdoulaye Wade na woon Pape Diop moom na bàyyi puuna yi mu rey ndax day rey ay puuna ci ay fétiche Abdoulaye Wade ko Abdoulaye Wade ko tuumaloon Pape Diop du samay wax nag Abdoulaye Wade moo ko tuumal Pape Diop nee na la pour ay xërëm ak mu ne ko ah kon de xanaa dafa mas a benn Karim ndax Pape Diop ak Karim ay waay la ñu woon te Karim mi ma gis nii puune la gën a nuru métis puune xëy na dafa rey ci métis yi moom it xëy na Pape Diop ko rayal benn wala je sais pas en tout cas Karim mi ma gis moom ay yéen puune daal la ma gën a nuru euh, métis Karim mi ma gis xaw ma lu mu seqal Pape Diop nag léegi nag foofu laay daanele dàq nañ seenum ndaje tey falaa tàmbale mooy poñ bu njëkk bi fa laay jeexale ne dañ koy yóbbu le huit ma leen wax ne nañu jóg taxaw xeex ak Macky Sall wàcc ko na wàcc Macky Sall demuñu moom ay élection négocier wuñu tooguñu wax ak moom ne woon naa leen daa ñoom li ñu bëgg mooy dialogue dialogue li sekk moom lay dox sëriñ bii nga xam ne joxuma leen turam ci loolu lay dox Macky Sall la ko yónni xam naa ko bu baax mi ngi war Ousmane Sonko nekk Ousmane Sonko lànk toogul ak moom ndax Macky ko yónni dialogue la bëgg pour ñu képp Ousmane Sonko ak mbooloo mi ànd ak moom ñu mën a pousse élection yi ba deux mille vingt six loolu leer laa wax dialogue yi wuñu dañu dem élection te Macky Sall waxuma la ay dem élection mais moom dañu ko war a wàccee fii ak le huit bii suba ñu korité bu ñu korité ngeen jóg taxaw ñu xeex ak moom fekk ko ci pale bi génn ko coolu jeex. Thierry Mandela convoqué. Ça veut dire quoi tout ça C'est pas possible ça. On ne peut pas convoquer Thierry Mandela. Quoi L'autre monde donné Thierry Mandela convoqué. Quand m'a convoqué Est-ce que c'est vrai ça Thierry Mahou Mandela dañ convoqué waaw Adramé Sarr dugal naa fotoom il faut que ñu régler kaaw Adramé Sarr ak ay mbokkam ak famille am Adramé Adramé Sarr bi diriger DIC il faut que ñu jógal ko il faut que moom il faut que ñu defal ko ay bagages Adramé Sarr le commissaire la ah, waaw Coro Maxu Mandela ñu koy convoqué Coro Maxu Mandela dafa tollu diggante jigéen ju wérul la comme ni ko mat ndaw si nekk terre bi nekkee dool tollu diggante ñu dàq ko ñoom jigéen ñi tollu diggante yi ñoom lañu soxla ci kaso yi ak ñi soog a céetal

ñuy wax nañu Macky avant le 8 il faut aller le déloger du palais d'ailleurs il dort pas au palais il faut qu'on aille le déloger à Mermoz c'est pas le palais on ne va pas au palais on va à Mermoz foofu lay fanaan dañ ko fa fekk guddi xeex ak moom takk il faut pas parler du palais on va aller le chercher à Mermoz ak Mariam il faut qu'on aille le déloger à la à Mermoz avant le 8 coow le parce que coow le loolu la hein. jaan ji bopp bi tant que dagguñu ko coono lu jeex mën nañu bés bu nekk di wax tey coono la gannaaw suba diw la gannaaw suba ñeent Macky Sall ak Marème Faye Sall la koy def ak Oumou Diallo nañ leen dem jàpp seen bopp yi dagg leen bu ñu ko deful réew mi du am jàmm avant le huit nañu préparé wu après Korité na ñëpp replié wu sur Dakar rapidement ñu génn suñu ay kakatoof génn suñu ay jëmtuwaay xeex ak ñoom amul leneen xeex rek Macky Sall mbaam la xeex la xam mook mareet umu est déjà handicapé waaw umu du dox ñoom ñëpp ay handicap lañ ñoom ñi comploteur yëpp ñu ci bari ay handicap lañ waaw dégg naa mbay si maasul moom ñëw na barki démb moom it ñu ngi ko yóbboon turki di ko faj seen seen kenn ci seen yàlla yi mbay si maasul xalif bu tuyaawoon ñibbisi na barki démb lay soog a jógee ca dëkku naar yam doon fajoo ji turki mi ngi mi ngi tuyaawoon xuma ndakaaru ñibbisi na barki démb mbay si Mansour lu ma trois mois quatre mois mi ngi ci dëkku naar yeeg tubaab bi di faju mbay si Mansour mu ngeen yaakaar seen yaakaar yu fii seen yaakaar yu fële naar yee ko doon faj kon waaw yeewi naa leen yéen ñëpp tey acca mu kon boog nañ ko yemale foofu loolu la ñu amoon di ko wax pour ngeen xam ko ñu vigilant taxaw temm euh, koor gi jeex na ba noppi liñ ci doon sàkku yàlla nañu ko yàlla defal àgg ceeg jàmm euh, muuri koor yi waxoon naa leen ngeen génne muuri koor yi asakay koor ji lu war génne la yéen ñëpp ko war a génne ñu ko a génne nañ ko génne jox ko jiji ñu dagaleel ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi ndax mën nañ koo lekk ndax ñoom dañoo ndóol ndax liggéeyuñu ñu ngi ci kaso yi tëdd bàyyi njaboot ci ginnaaw képp ku koy joxe nga woo jiji jox ko te dëkk ba nga nekk bu ne xayma nañ ci xaalis ñaata la ci bopp bu ki nekk boo koy génne pour yow kese nga génn ko su fekkee am na njaboot boo ko war a génneel nga génne leen ko dajale ko yónnee ko jiji mu boole ko ci kañot bi nga xam ne ñu ngi koy dajale pour jàppalee ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi te liggéeyu ñu bàyyi njaboot ci ginnaaw ñoom mën nañoo lekk murum koor ñoom lañ ko bëgg jox duñ ko tasaare di ko jox fenn bu ñu mënee lekk muurum koon ku nekk ci kaso moo ko gën a mën a lekk te ñu nekk ci kaso yi li leen yóbbu ci kaso yi mooy suñu njariñ ñun ñëpp li ñuy lii may wax ñoom lan la ñu wax li ñuy bëgg ñun ñëpp ñu njariñ ñëpp ci loolu la ñuy xeex ba dugg ci kaso yi kon ñu ñoo gën a gore bu ñu génne asaka muurum nga xam ne yàlla moo ko santaane mënut a ñàkk ba ñu génn ñu génne ko jox ko koo xam ne mën na koo lekk te mooy kuy xeex dëgg ba caawi féete ko kaso mu tumuranke njabaram tumuranke ay njabootam tumuranke ci ginnaaw ñu dagale leen muurum koor bi jox leen ko yool du ko gën a rëy wéri koor gi nag moom boko ko ba noppi yàlla du bindugun benn tuyaaba seen la yéeg seen uh, uh, xayrun min alfi shahrin géeg laylatul xadri géeg yooyu yëpp yàlla lu ngeen def rek mu paqueté teg rek taxaw ab koppele rek day day jël saaku ci saaku gerte yi rek saaku bu ngeen sol mu jël teg fee taaraaragul yóbboogul ci segal diw génnagul de seen li ngeen def ci koor gi yëpp xiifal yeeg yëpp amu ci bu ci yàlla nangagul nangagu ci benn lépp ma nga mu aj taxaw di xaar kañ la koy nangu bu asakay koor ji génnee tant que génnul yàlla du yàlla du signé chèque bi du dem na ngeen ko xam yéen ñëpp bu kenn xawma ko nag du samay wax voilà ku mu neex génne joxe ko fii pour prisonniers yi ku mu neex nga génne ko jox ko keneen koo xam ne mën na koo lekk yéenay choisir forcé wuñu kenn waaye man dama jàpp ne ñu ko gën mën a lekk mooy ñu tëdd ci kaso yi ak ñu nekk ci hôpitaux yi ak jirim yi ak ñi nga xam ne dañoo ndóol amuñu amuñu waajur yi leen mën a dundal dañ nekk ay jirim ak ñu tëdd ci hôpital yi nga xam ne mënuñoo liggéey te amuñu ak ñi tëdd ci kaso yi nga xam ne caabi day na fete kaso ñooñu ñoo gën a mën a lekk asaka yool ba ca nekk moom laa leen yéene moo tax ma di leen ko wax waaye forcé wuñu leen waaw kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay awaa ah, doylu leen waaye nag ah <laughs> moom yëf moom xam naa doylu leen kay waaye nag ah foo ñu dem nag dégg nga maam nag yi nag guddi na ba ba yoon rek incha allah waaw doyul koy waaye nag ah, noonu la a demee nañu muñ rek kon uh, ñu ñaanalante fasalante jàppalante dimbalante taxawante waaw bu dee France moom sept euros la dee France sept euros la par nit bopp bu ne bu dee yeneen dëkk yi xawma ñoom kenn ku ci nekk dëkk ba nga nekk bu ko laajtee borom xam-xam yi daañu leen wax lañ lañu tënk ci dëkk ba ne mooy muuru koor par tête par bopp par nit yéen boole ko bu fekkee mbooloo bu fekkee kenn la tamit mu joxe ko su ngeen ko mën a jox jiji am ngeen numéro baax na bu ko mënul ngeen jox ko keneen ku ngeen yaakaar ne mën na ko lekk mu leen ñu bari lekk loolu mooy problème bi li ëpp réew mi mën nañoo julli mën nañoo war mën nañoo këpp këpp mais amuñu xam-xam-xam ku a lekk asaka ak ku ko mënta lekk loolu mooy problème moo tax ma di leen laaye wax ne ñii mën nañ koo lekk man maa ko wax pour mu yomb boobu léegi nga naan a lekk ku ko mën parce que du question joxe ko ah, koo jël ko jox ko kii du a génne waaye boo ko génne kan moo ko war ñëpp mën a lekk murum koor am ñu ko mën a lekk am ñu ko mënta lekk te dafa war a génn avant korite gi voilà kon raccourci la comme xam comme... ko États-Unis 10 dollars la ok ñu nekk États-Unis il paraît c'est 10 dollars ñu nekk France c'est 7 euros ñu nekk Espagne feneen feneen xawma Je nañ ma ko waaw Bali Bousso on me l'a dit nañ ma tu as la voix de Serigne Sambe, tu as la voix de Cheikh Diop on me le dit souvent c'est vrai Serigne Sambe ak on me le dit souvent effectivement, tu as la voix de Serigne Sambe et de Cheikh c'est un honneur c'est un honneur un compliment euh, que, voilà, de, de, de, porter la voix de, de, de, de, de de Serine Sambay ou de Cherante Diop. Ce sont des, ce sont des savants, des sachants, des érudits. Donc, soit on a la voix de Paulèche, wala tu as la voix de Wallace Seck, wala tu la voix de Lapoto, de Menakare, ouais, Serine Sambay et Cherante Diop. C'est une fierté. <laughs> voilà. voilà Canada c'est 10 dollars il paraît voilà voilà c'est bien kenn ku nekk na joxe ñu nekk Canada 10 dollars ngay génn par nit ñu nekk États-Unis 10 dollars ñu nekk France 7 euros ñu nekk Espagne Portugal ak Chine Brésil xawma ñoom kenn ku nekk daal en tout cas daal yaa yéenay xool ngeen dagale ko comme ni ngeen koy amee di ko dagale parce que dagale gii ma leen wax nii moo gën a nekk farata dagale yi ngeen dagale ci daayira yi gis nga daayira yi bu ñu jotee keesu daayira yi ni ngeen ciy farloo ko def te loolu yàlla santu leen ko yàlla newu leen ngeen dajale ay addee di ko def ci ay keesu daayira di ko jox yàlla santu leen li leen yàlla sant mooy ngeen dajale seeni alal génn ci asaka jox ko miskin yi lii leen yàlla sant moom ngeen gën a suufeel li leen seen sëriñ sant addee ji yi dem ci sëriñ bi ñu ci bari moom ngeen gën a yitteel li leen yàlla ak yonent bi ci sant loolu nag màndargay texee di la ku nar a texee di mooy def loolu bu ñu nee sëriñ bi kees gi rek bu jëm Touba ak Tivaouane nga taxaw ci temm am ci parlo waaye bu buñ nee asaka ji war a génn ci murum koor pour jëm ci miskin yi jëm ci ñu feebar ñi jëm ci jërim yi jëm ci ñi nekk ci hôpitaux yi jëm ci ñi nekk ci kaso yi nga nga yolamal taf yëngal mais bu ñu nee keesu jumaa ji la wala keesu sëriñ bi wala keesu daayira bi kooku moom da ngay takk sa ndigg li sëriñ bi bëgg moom moo gën a nekk farata ci yow li yàlla ak yonent bi digle loolu nag mandargay ku texee di mooy taxawee noonu lépp lu yàlla bëgg nit ñi duñu taxaw waaye li sëriñ bi bëgg ak keesu koñ bi keesu jumaa ji keesu daayira bi loolu moom acca acca acca taxaw temm lañ ciy def ku ñu nekk nag yaa xam sa bopp waaw ki ko gën a gaaw a génne nag mooy ëpp yoon yàlla buy fay yéen ñaar ñëpp lay fay waaye ki ko génne une semaine avant ki ko génne plus tôt asaka ji dañ lu mu gën a gaaw a génn gën dafa am ngëneel yu cay topp yow yéen ñaar ñi ko génne yéen a yem yoolu génne ko waaye ki ko njëkk a génne day am buuñaa day am bonus ki ko njëkk a teel a génne moo lay ëppale yow day am plus que yow loo ndax da nga yéex a génne yàlla def dañ ko teel a génne mu teela dem ci ñi koy jëfandikoo ñu mën a faggu lu ñu mën a mos lu ñu mën a dunde ndax ñoom ñi ko amul ba jamono bi may wax ak yéen ñi ngi jaaxle ñu ngi ci njàqare ndeysaan kon loo leen gën a gaaw a jox li nga leen jox rek seen njàqare ak seen tiis gën a gaaw a wàññeeku loolee nag yàlla da ciy fay plus la ci def buuña yow yow mi ko génne sa morom yéen a yem payo génne gi waaye kii ko njëkk teel a fàggu génn teel koo génne ba dëfal miskin bi kooku day am plus boo xam ne yow doo ko am loolu nag naari ñoo ko xam naari ñoo dañ naari ay milliards la ñuy liggéey ci asaka naari Europe États-Unis fépp tekkee si si jàkkee naar yi parce que ay milliards lañ ci dajale def ko ci ay fondations di ko yóbbu ay Palestine di ko yóbbu seen dëkk naar yi yi nekk diaspora bi yëpp dañu dem ci keesu naar yi di fa dugal xaalis te naar yi ay pétrodollars lañ ñooñu ëpp alal fuuf mais organisé wul nañ benn organisation ci jàkk yeeg jumaa yeeg kii ba ay milliards lañu dajale chaque année ci asaka murum koor di ko yóbbu ak zakat bi nga xam ne mooy di ko yóbbu ci seen dëkk yi ay palestiniens léegi la ñuy yóbbu ci Mali Sénégal mais tuuti lañ ciy yóbbu parce que diaspora africaine bi diaspora bi li ñu war a dajale ñoom pour que mu mën a dem ci seen dëkk duñ ko def saa suñu dajalee sëriñ bi la ñuy dajale sëriñ bi daayira tarexe bi la ñuy dajaleel waaye jox sama xaalis pour mu dem ci sénégalais kese kese kese kese mënoo koo am ci sénégalais saa su ko joxee da koy joxee pour mu dem ci Pastef saa su ko joxee da koy joxee pour mu dem ci sëriñ bi nekk Touba wala bi nekk Tivaouane wala toujours da def ci groupe mais def ko de façon anonyme mu nekk solidarité boo xam ne dafay war dem ci ay sénégalais mënoo ko am sénégalais loolu naari ñoo ko man moo tax ma ne pourquoi ngeen jël seen asaka yi mu ngi ko ko jox ci keesu naari lu tax ñun sénégalais yi mënuñu ko dajale au niveau mondial dajale ko mu nekk ay millions d'euros Nous ubbi ci ay fondation di ci jàppale sénégalais de façon anonyme du keesu touba du keesu tiawon du keesu daayire keesu sénégal la par lu ngeen am ci daayire yi ba taxawal kees yooyu bu ngeen ko amee ci asaka ji chaque année ñu dagale ko mu nekk ay millions de dollars plus de 400 000 sénégalais ñu ngi dans la diaspora officiellement sans compter les binationaux ak ñi nga xam officiellement xamuñu leen à peu près 700 800 000 sénégalais dans la diaspora chaque année bu ko nekk génnee 5 euros vous savez combien ça fait 7 euros bu ko ku 5 euros en moyenne comme muurum koor korite gu ne xam nga ñaata la ci xaalis ñu daaj caisse au niveau mondial ñëpp dugg fa xam nga ñaata la ci ay million d'euros hein? est ce que xam nga ñaata la plus de 700 000 sénégalais ci bitim réew bu ku nekk joxee 5 euros chaque année vous voyez l'impact que ça fait dañuy am plus de 35 millions d'euros. yu taxaw yu bokk ndey ak chaque année trente cinq millions d'euros ñu yóbbu ko Sénégal taxawal ay fondation formé ci ay nit jox leen ko ñu ñu di ci fayee ko ñu ciy liggéey nekk ci ay fonctionnaire ci biir fondation bi di dimbali sénégalais yi tabax ci ay usine dagg ci ay tool di ci bay di ci liggéey di soqale réew mi di ci génne koom-koom di ci créer ay emploi di ci dimbali néew du doole lii may wax lu ñu ko tee def mënuñu ko def parce que kenn kii may déglu nii moom Marlene Baye dafa daggoon waaye loolu rek é wax loolu moom bokkul ci sujet bi waaye il faut que diaspora bi organiser wu asaka yi ngeen que génne muy dem ci keesu naar yi voilà trois virgule cinq millions de dollars que presque deux milliards par année loolu xaalis la loolu mën nañu def lu bari. il faut il faut penser comme ça mutualiser àndandoo. waa taxaw di wax rek naar yi gën ñu organiser gën ñu structurer daa ñu liggéey dina mën mu mobiliser xaalis di créer di def solidarité seen biir ñun ñu taxaw di xool rek ñun ñuy wax rek photo soo ko wëndeelu rek nañu soppiku soppi suñu bopp changer disque yi am rationalité am humanisme am solidarité am confiance entre nous volonté ñu kenn ku nekk def ñu mën a am lu bari pour jàppalante tabax réew mi kon ñu fanaan jàmm asalaamaaleykum ne leen yàlla sàmm sàmm réew mi yàlla ñu jëf